salaamaaleykum àdduna wërngal këpp yéen ñi seetaan Tektal TV ñi ci màggal tubaa di war fekk fii kii di Cheikh Bara Ndiaye boroom def gis Cheikh Bara gis nañ taalibe yi saafonte bi wëllër yi ñëpp di ñëw ngay dem ak euh, dikk xat lool mais ñu am taare nga sànnul ñuy kàddu ci màggal gi lan ngay wax ci kii di Serigne tubaa lim ne kaay leen sant ma sama boroom ci ñu dem ba ne gëléem ba ci ginaar lu ci waaye man berndeek euh, yenu bool ak jàng alxuraan ak jàng xasida ci bis bu tedd bi waaw sëñ Cheikh maa ngi lay siyaar bu baax xam nga nag màggal gi ren damaa xawoon naa amee grip moo tax sawaruma lool tane naa bu baax nag mais taxut ma sawar daal te damaa bari aw gan lool ñu jógee Gambie fu nekk waaw am na kilifa euh, mu xaddam ci waa Kër Baye Niass mi ngi noonu ko sëñ sëñ bu mu xaddam jaawo mi ngi noonu war a tàggatoo léegi loolu tax euh, jot gi bëriwut daal hmm. waaye nag noo ngi santaat yàlla bu baax a baax ci fekke gii ñu fekke waat bisub sëñ Tuubaa bi ndax euh, sëñ tubaa moom day koo xam ne euh, nun amuñu ko ñaari yoon benn lañ ko am ndax euh, daf ñoo jàngal loo xamante ne bu dul woon ak moom xamuñu ba xam danañ ko mën a jàngam de ndax joxuñu diine waaye moo ñu ko déggloo mm. moo ñu déggloo diine déggloo diine nag buñ ko waxee mooy sant gi ñuy sant suñu borom mooy lépp lislaam waaw sant ndax yàlla dafa jël sant jaaxa eh, eh, jàkkaarloo ko ak ko jël ñàkk sant jàkkaarloo ko ak weddi kufru nga xam ne boo santul yàlla sax taxawaayu bi yéefar nga taxaw ci àdduna kon nag buñ taxawee di sant suñ borom subhaanahu wa taala di ko jaare ci suñ tubaa loolu dafay wane ne kon sëriñ bi di mbili nañu sëriñ tubaa nag day koo xam ne Euh, ni mu déggee àdduna ak ni mu déggee yàlla kenn déggewu ko nii àdduna kenn déggewu ni yàlla hmm. ndax boo xoolee euh, bis bii mu jël na moom ci lay sant suñ borom euh, muy buñ doon xool tey àdduna dañ naan ah diwkat bis nangam ci la amoon ndam ci nangam kon bis booba lay sant waaye Euh, sëñ tubaab moom bis bi mu amee natt la jël di ko sant waaye moom dafa xam ne mbir mi lu mu gën a jege yàlla moo ko ca gënal ndax ndam li maanaam nattu bee ko jur suñ ko jëlul woon nattu ko euh, tubaab yi jël ko yóbbu ko maanaam ndam lii mu am amaana kon du ko am kon ndam li ndam li nattu bee ko jur nattu bi nag moo jekki-jekki jóge ci yàlla ne put comprendre nga li mu baax kon moom au lieu muy jël ndam li di ko màggal day jël li gën a jege li gën a jege ca suñ borom muy nattu bi comme nattu bee jóge ci yàlla wàcc doog a jur ndam li dafay bàyyi ndam li dem màggal la gën a jege suñ borom loolu mooy li jege yàlla lay dundal moom moo tax mu jël bis bi nga xamante ne mooy nattu gi waaye nag euh, bis bi tamit gis nga ko ni mu demee euh, maa ngi koy wax léegi àdduna ku la ëppale ku la ëppale ku génn fii rek xool rek gis ku la ëppale hmm. waaw ku am dana am ku la ëppale wu yaram hmm. dama laaj ko ba xam day entraîné hmm. wala daa doon ay seen ay sanati ci waajuram yoo xam ne moo la ëpp yaram waaye boo demoon ne ko lu tax nga ëpp ma dana la lii tax ma ëpp la bu ngeen waxtaanee rek xam lu tax ma ëpp la ko ku la ëpp xaalis su ngeen waxtaanee da xam lu tax ma ëpp la xaalis ku la gën a rafet dana la saa yaayee moo rafet woon wala saa bàyyee rafet wala nii laa demee ba rafet wala dama koo toppatoo wala nangam waaye dama laa a rafet noonu ku la gën a ye am xam ku la ëpp mm, karaw ne la dama koo yar ku la gën dàq ku ëpp xam-xam ne la dama koo jànge woon dégg nga mm. nit ñi nag ki ëpp yàlla mm. bu ne teg xam sañ Tuubaa li tax mu ëpp ñu yàlla mooy li ko yàlla jaral lañ gisut kum ko jaral moo tax li ko yàlla jox gisuñu kum ko jox te suñ waxantee dëgg kun mën a doon ci àdduna di nga jaamu yàlla de waaye di nga jaamu sa bopp mooy jaamu say soxla kenn ku ne da naa bitig bii lay jaayee fee lay jullee tool yi lay bay lu mu lekk fee lay jullee sëñ Touba nag nit mm. mësta joxoñ fu muy sàkkoo fu muy jaamoo soxlaam dundam gépp yàlla la ci jaamu mm. waaw ku joxe noonu yàlla boppam nag nga xam ne li ngay am yàlla nga koy jox mm. doom yi ngay jur yàlla nga koy jox noy yi ngay noy yàlla nga koy jox li ngay bind yàlla nga koy jox toog gi ngay toog sax ci bind di dem dem ci yàlla wala di jàng alxuraan dégg nga boo amee alal sax sëñ Touba buñ ko siyaaree day wut ñi mën a bind alxuraan mu ne leen bind leen ma fay leen ñi koy jox kaamin yoo xam ne da koy del di teg di fóon di dajal di raay non nii nag mu defoon suñ borom subhaanahu wa taala moo tax yàlla def ko noonu hmm. yàlla nag ni mu ko def jafewut mooy daa rocc xol yi doomi aadama yëpp jox ko ku wedd demal ndakaaru tey nga xool hmm. waaw ma nga ne selaw hmm. moo tax nag mbir yi yàlla yàlla jaawalewut defut dara wa maa tuqaddimu li anfusikum min xayrin tajiduhu indallahi wa xayrun wa ahsanu ajran yàlla mësta jaawale mësta juum mësta jaxase kenn ku nekk mu kenn du ji kaani ñu jekk-jekk ñu naan ak déema fa ak déema fa sax sëñ Tuubaa ni mu defoon suñ borom subhaanahu wa taala ci diirub espace dund gi mu amoon ci àdduna lool la nit mësta defal yàlla loolu tax yàlla defal ko lu mu mësta defal amul morom mën na signifier loolu quoi waaw amul morom moo taxit nun nag buñ dee ay nit nan def suñ Tuubaa noo xam ne def duñ ko def kenn hmm. wax naa ko xale yi tey ci bëccëg hmm. gis nga yàlla ñun dañ naan da ngay dégg ñu naan murid di sëñ tubaa lañ gën a fonk ci yonent bi noo tey man de sëñ tubaa fonk naa yonent bi da waaye sëñ tubaa laa gën a fonk de waaw waaw mm, waaw waaw te man nag du mab dof du mab jaahil borom moom damay xalaat gis nga ku ma jox cent mille francs def ko ci enveloppe mm. naan ma fonkal cent mille yi waaye enveloppe bi du dara ah. <laughs> même enveloppe bi bu dul dara bu ma ñàkkee enveloppe bi ñàkkaale cent mille yi damay téye enveloppe bi pour ma mën a téye sama cent mille li sëñ tubaa nag leetar bi ñu yàlla jox ci sëñ tubaa la ko denc mm. sëñ tubaay enveloppe bi yenant bee cent mille yi ku bëgg a jot ci cent mille yi téyel boo bokk boo téyee enveloppe bi ba mu dëgër rek sa sa cent mille du dem sa cent mille du dem waaw noonu la affaire bi demee boo waxee sëñ Muntaxa taxaw na fii mu ne su sëñ Tuubaa taxawee lii nag na ko teg ñëpp dégg ko parce que dañoo naafiq sëñ Tuubaa bu yow mal xayaamee sëñ Tuubaa taxaw nii yonent bi taxaw nii ci sëñ Tuubaa laa jëm am ñu naan day day tëkkale day bokkaale bu bu fi rombee bu fi rombee sëñ Tuubaa dem ci yonent bi lu mu fay wax hmm? sawaay sa waay banque CBAO nga denc sa compte. waaw nga ñëw CBAO tijjiwut nga dem business loo fay wut. <laughs> yébaate pourtant xaalis nga bëgg. waaye la maanaam euh, laaj. ka nga dénkoon. ka nga dénkoon dégg ma. Mm-hmm. ku la wax ne la maanaam bu ñu tegoon yonent bi teg sëñ tubaa du dem ci gis nga dama lay wax benn affaire. bu ñu mm-hmm. tegoon fii ab kaamin. Mm-hmm. teg fii junni koy jël. kaamil mën nga ci am junni mën nga ci waxuma loolu koy jël rek. noonu damay xool euh, valeur kaamil. bi laay jël rek seex mu ja mu gàtt. non non nekk xam nga lan la. Ah, boo tegoon fii million bu ñu tegoon fii cinquante mille teg fee ab kaamil looy jël. cinquante lu gën. kaamil bee gën. Ah, jeex na. waaw lii cinquante nga ci am ñeenti kaamil. ci dama ne ci sab nattuwaay. Ah. maanaam sëñ dem ci sëñ Tuubaa mooy dem ci yenant bi. sañ Tuubaa amul fu mu yóbbu nit fu dul ci yàlla. xamut lu dul yàlla mm. jàngu dudul yàlla jàngale wudul yàlla mësta def benn seconde bu mu defut ci yàlla kon ko dem ci moom bu la yóbbul ci yàlla fu mu la yóbbu waaw ko dem kon dem ci sañ Tuubaa kay mooy dem ci yàlla gu gaaw gi ah wax naa ko wax naa ko benn waay sama sama benn xarit mu ne ma sëñ Tuubaa yonent bi la doon la doon topp ma ne ko waaw mu ne ma kon man lim doon topp laay topp ma ne ko sañ bi mu naa ma ne ko boo ñëwee ci koñ fekk fa borom bitig bu yor pomme de terre di ko détaillé nga bëgg kilo pomme de terre nga ne ñëw ba ci moom ne ko foo ko jëlee mu ne la ci grossiste bi nga dem ci grossiste bi di nga sonal grossiste bi sonal sa bopp doo nga am pomme de terre waaye boo ñëwee ci détaillé bi doo sonn détaillé bi du sonn nga am pomme de terre parce que boo demee ci grossiste bi mm. danaan la maanaam jàppale ma saako yi ñu yenn ñu wàccee <laughs> parce que moom du man a jékki-jékki daj ndax yorut lu muy détaillé grossiste lay jaay dégg nga. nga jël nga jël nga jël nga jël ngeen ànd di di yenni saako di yenni saako ba gis saako bu dajji ko. mu doog la caa nattal. sonn nga sonn na te li ko jox du ko amal njariñ boo dee jënd ñaari kilo yi du ñaari kilo yi pomme de terre yamal ci détaillé bi dégg nga mm. yenant bi nag sëñ daañoo fekk mu jaay sëñ tubaa góros góro ba noppi mm. ku bëgg ñaari kilo yi li ngay wut ci yàlla demal jaar ci sëñ tubaa rek ci la gën a yombe mooy détaillé bi grossiste bi mm. dégg nga te magi Sénégal dafa am ku wax ne day bay toolam ci yàlla Mm-hmm. ab ibaadu la dañuy bay suñ tool ci yonant bi salaay salaam man ne ko fu ngeen di bay mm-hmm. waaw mm-hmm. tool bu booy ci yonant bi moo amut ci Sénégal man maa la ko wax ndax mag ñi tool bu booy ci yonant bi amul ma ne ko yonant bi turam wi ñuy wax Mouhamadul Mansour ñaata Mansour moo am Sénégal bari na na hmm? bari na fu mu jóge Alaaji Malik moo jekk-jekki ne eh, turu yonent bi ñuy wax Mansoor de su ma tuddee sama doom ji Mansoor li dinaa ko ci produire ay junni junni Mansoor ndax man barke yaa barke ngi ci man daal dina daal dina jël doomam ne tëf na Muhammadul Mansoor muy law na foo nañu naan la Mansoor Mansoor Muhammadul Basiir mm-hmm. ah bu ko sëñ Tuubaa tuddee wu doon sëñ Basiiru ñaata Basiiru am Sénégal man naa am sax turu Basiiru day raaf Sénégal sëñ Tuubaa ne xaaral turu Basiiru turu yonent bi du fi raafe tëf ne Mouhamadul Basir Mouhamadul Mourtada dégg nga mm. nga dem ca Baye Niass mu ne Mouhamadul Maahi dégg nga ak tur yu bari yoo xamante ne euh, tur yu bëree bëree bari yoo xamante ne maanaam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo moom tur wi mag ñi bëgg a dundal tur wi mm. tudde ko Mouhamadul Moustapha mm. dégg nga tur yooyu Mouhamadul Mourtada yow bu bu bu maanaam murtada moo dégg ci suñ murtada bii rajo laa nga nga nag looloy loolu mooy bay sëñ Fall goo dégg mu loolooy bay toolu yonante bi sallallahu alayhi wa sallam Muhammadul Faadal hmm. gis nga loolu mooy bay toolu bi sallallahu alayhi mooy hmm. dara yonante bi luy raafe Sénégal amut ba kenn di ko bay hmm. waaw dégg nga magi eh, Sénégal Omar Sall ngay tontu rek man awum Omar Sall du ma ko seetaan déedéet awum Omar moom daa jànkut waaw yaa ngi may tooñ sax ndax yaa may tudd looy jàmbur ah, ah, ah. Omar moom wax dëgg yàlla émission ba Ndiaye loo Ndiaye daan def mooy euh, wareef la xaw ma. moom loolu la war di def mooy mooy def leçon de moral leçon de waaw waaw leçon de moral mën na koo jox senegale yi. góor day téyeb sayam nangam nangam. Mm. waaye xam-xamu diine nii. Mm. Omar jàngut. waaw non jaa jaa jàngut moom loolu moom. loolu moom même ñi koy ànd ak moom xam nañ ko. Mm. jàngut te nag jàngut di tari moom jaxase. day moo tax man wax dëgg yàlla te nag man moom man loo mas a gis lu mu jaxase a loolu aw ma jot googu man sama connexion laa yor di seetaan man ku may déglu da nga ëpp xam-xam ma koo xam ne nii wóor na ma ne yow ëppoo ma ma toog di la déglu di yàq sama connexion pour la du ma ko def oh, maa ngi jéggalu sax tudd gi ma ko tudd maanaam damaa bëggoon a dund ba dee du ma ko tudd parce que awuma ci moom yitte mm. voilà awuma ci moom benn yitte yoo xam ne man am naa ko maanaam li muy wax ñoruma mm. bu dee lu muy digle defuma bu dee lu muy tere bawuma man du sama hmm. référence salaamaaleykum àdduna wërngal këpp di seetaan Tektal TV nuyu nañ leen bu baaxa a baax a baax di leen siyaar di leen ñaanal di leen sàkk di sàkk ngeen ñu ñaanal di am mbégte ak kontaan ci ànd bi ngeen ànd ak Tektal TV ci màggal Touba ñu nekk fii ci Ndindi kër sëñ Jili Fata Falilu nga xam nag euh, dafa bokk ci euh, suñ cosaan ci suñ lépp suñ kër suñ moomeel nga xam ne ko kun fi laajul yaay kan doon laaj ñooy kan ndax euh, dañ fi am cër mbiram doon suñ mbir suñ mbir di mbiram ndax benn lan sëñ Jili Fata Falilu euh, yaa ngi ci Tektal TV sa télé euh, ak Màggal Touba lan ngay nuyu ñi lay seetaan ñëpp ci Tektal TV. waaw jërëjëf sëñ Cheikh maa ngi lay nuyu bu baax di nuyu maam Fallou ak yaayam di nuyu mbooleem ñi nga xam ne ñooy liggéey Tektal TV suñu wàdd ak équipe bi yëpp. di nuyu nag mboolem téléspectateur ak téléspectateur su Tektal TV yëpp di la sant bu baax ci ñëw gi nga ñëw fii euh, di fedd li nga wax rek mooy sa kër nga ñëw su defe naa ne ku la xam xam ma sa diggante ku la xam xam la sama digg sa digg sama diggante yow ngay ab taal boo xam ne sa lépp fii la sa pëseef sa sa cofeel sa yéene lépp ñu xam ko kon nag moo tax mboolem presse bi fi ñëw yaa fa naan yaa leen di dalal say gan lañ waaw kon nag maa ngi leen sant baax ñëw nga ñu fekk ñu nag ñu ne ci euh, tàmbali guddi màggal gi euh, sax fas yéene nekk ci ndigalu sëñ Tuubaa yi te mooy mooy mooy mooy sant la ko suñu borom rek ci guddi gi foofu daal nga ñu fekk euh, balaa ma ñëw ci màggal gi dañuy wax sañ Jili ak yëg-yëg bi nga xam ne que am na ko ci doomu aadama yi sëñ Jili ak ni mën a garde nit am na ñoo xam ne que mënuñoo nekk nit un bu mat sëkk soit dinañ la def lu la naqari dinañ kii daal tàqalikoo dina am léeg ba lu ne di ci am mais yow dañu gis ne koo fii fekk fii ba fukki at boo bu absenté benn nga am ngant lay doon ëllëg nga gisaat ko maam ni ngay garder seen nit cofeel bi ni am ci yow di yokku euh, mbëggeel gi ni am ci yow di yokku taalibe gi ni am ci yow di gën a dëgër euh, taalibe yi yokk bu baax a baax te sëñ jili image bi rafet nga mën a nekk ak ñëpp loolu tamit ban nga ci ñaax pour nit ñi ñu mën a téye seen niti dem ak nitu tey. waaw euh, jërëjëf euh, si Cheikh comme ni nga ko seetloo seetlu ma ko waaye seetlu ko kon alhamdulilah da soññi la ci noonu xam nga sëñ bi dafa waxoon ne na ngeen defar seen ñett na ngeen def seen ñett yi na ngeen defar seen jëmm yi ba ba ku leen gis xeme ma jaxasoo yéen waaye na ngeen defar seen jikko yi ba ku leen jaxasoo du leen mën a bàyyi na ngeen defar seen dëkkuwaay yi ba ku jóg mën a wàcc ci yéen. xam nga Cheikh ànd ñaar moo koy lal mooy jëlale ak jéggale nit koo bëgg a àndal Cheikh del ànd ak moom yow sa jikkoy bopp waaye bul ànd moom ci jikkoom waaw ndax koo ànd ak moom jikkoom rek man ngeen a waaye koo ànd ak sa jikkoom ak nu man a mel rek da nga ànd moom ndax mooy mooy da nga koy daa jàppe sa bopp donc ñaareel ba it damaa fas yéene képp ku may àndalit ma ànd ak ngir yàlla képp ko waaw te yàlla tax parce que képp koo xamante ni ànd ba gis naa ne leen rax na ci damay damay tàmm ñu teel koo gàttal waaw ndax ama isa saati lila lilaa ahat faqi bu wal faw suma alhamdu abad axiru sobat lu xëy laay ini at ju ilaa ilaay hmm. sëñ bi dafa wax ne maanaam képp koo xamante ne yàllaa tax ngeen ànd alhamdulilah ci ngeen mujjee waaye képp koo xam ne yàlla tax ngeen ànd inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ci ngeen mujj waaw kon nag Cheikh ci loolu daal laa laa jàpp ne ci laa nekk. ba tax xëy na loolu nga wax mu nekk. mu nekk waaw ah, yàlla gën a barkeel ndax gis na ni te gis na ni ku doon taalibe sëñ Jili fu mu toog dina ñemee fësal ne man mii taalibe sëñ jiili laa te taalibe sëñ njiili dañuy am cofeel goo xam ne ak dëggu ak Pastef ak rafetal entre ñoom ci seen biir ba mu leer damay gis euh, jikko yoo xam ne que sax léeg-léeg dinaa gis ni lewet gooy lewet kenn ku ne cër bi mu am ci yow moom bu gàttee xel day jàpp ne fi nga ko teg tegoo fa kenn baax googu moom wax dëgg yàlla sa jikkoy turandoo nga jël ba doyal jël sa jikkoy maam ba doyal léegi nag bu doon ñëw ci màggal sëñ Jili di la ñaanal nga yàgg fi loolu te ànd ak wér parce que lii ñu wax nii euh, yàlla na la cat sori daal ci ci baaxaay gi bu baax a baax mais dama bëggoon ñëw ci màggal Touba ak ni koy defee ak euh, télé yi ak rajo yi léegi léeg bu doon am nga ay conseil yoo ci joxe ne lii moo sañoon nag euh, mën na ñàkk ak lii moo sañoon ñu yokk ko ci xeetu léeg-léeg nga gis côté or yi doon modd léeg-léeg nga gis tamit côté euh, cérémonie officielle bi léeg-léeg euh, tuuti politique waaye politiciens yi mën nañ ñëw bëgg a jël seen wàll ci teewaay bi soxla ngërëm ak yooyu xeet yooyu yëpp daal bu doon am nga looy dolli wala looy wàññi ci mbiru màggal loo ciy dolli. waaw man man ci mbiru màggal ren sama damay wax ne surtout màggal gu ren gi damay wax ne màggal la goo xam ne moom ndaw ñi lañ ko war a jagleel. waaw wala boog man ndaw ñi laa ko jagleel xam nga lu ko waral. Mm-hmm. xam nga Serigne Touba Xaadimal Muxtaar ci liggéey bi mu doon liggéey lu ci bari da cay jël pàcc bu am solo ci liggéeyam jagleel ko ndaw ñi waaw bañ nañ ko ba téere bi nga xam ne moom la njëkk a bind ci fiq moom la ñuy wax tasooru si xaar mu yóbbul ndaw ñi euh, tasooru si xaar abiyaat bi ci ndëkk dafa wax ne yaa yo sibyaanu laa tastaxiloo anil xuda wa bil xulumi staxilu fastaxiloo bil xiswatila wactañi boo majalis saxaawa yéen ndaw yi maa ngi leen di dénk bu soxlawoo lu dul ak jub na ngeen soxlawoo ak jub na ngeen soxlawoo sàkku xam-xam te na ngeen di moytuñu ko jataay texet yi loolu nag euh, Cheikh mu mel ne wax jooju tey jii lañ ko lañ ko war a yaatal ndax jamono ji fi mu toll ak jikko yi ni mu yàqoo ba ñëpp xam ko dañuy mm-hmm. wax crise de valeur fi mu ne ñëpp xam na ne jikko yi yàqu na ndax mm-hmm. te it damay wax ne lu ci ëpp nag presse bi am na ci responsabilité mm-hmm. waaw ndax mënuloo gis koo xam ne wax ju ñaaw rek lay wax wu ñu aw suturaay nit rek lay def. nga di ko defal promotion. Hmm. te waxuma la presse dem na ba léegi nit ñi kuy wax wax ju ñaaw la ñuy soxlaa seetaan moom la ñuy soxlaa déglu. Hmm. kuy wax wax ju baax lu rafet dañ lay dañ lay sàppe teg leen fële. loolu nag moo dox tey ba li xew assemblée bi am fa. Hmm. ndax viola violation bi nga xam ne moom am viola nit ñi ni ñu violé wax wax ju ñaaw rek la ñu man te bu njëkk baatu saaga boo ko mësaa dégg dangay ngay tiit. te léegi daanaka ko kaf sax saaga. ndax bu njëkk nit ñi dañ daan sóoraale bu fekkee dangaa nekk ci média da ngay sóoraale kilifa yi lay déglu. Mm-hmm. wala da ngay seeraale waajur yi lay seetaan. Mm-hmm. wala da ngay seetaan sa nawle yi yi lay xool. Mm-hmm. nga di leen ci bàyyi xel. waaye léegi nag dafa mel ne loolu yëpp dañ ko teg fële. te muy loo xam ne. képp koo xam ne yaa nga ca bis dana ñëw dañ nga ko rëccu. sa see xam nga lu gën a métti ci àdduna. Mm. mooy rëccu. waaw waaw te wolof yi dañuy wax ne rëccu dana fekk jëf wees. Mm. kon nag ndaw yi nañu delloo si seen xel. Hmm. defaraat seen jikko yi. Hmm. te xam ne mbir moo xam ne lu mu yàgg-yàgg bis dana ñëw nga réccu ko. Hmm. jàpp naa ne da ngaa war a fexe ba ba sori ko daw ko. te li leen gis ma ah, ma dañu gis jikko yu yàqu yi li muy yàqu-yàqu. mais dana gis ne tamit dafa dafa gën a garaaw ci côté kilifa yi dafa dem ba léegi kilifa mel ne day perte kàddoom pili kilifa mel ne day euh, perte cëram nit ñi léegi nit ñi ñemee kilifa. ak nin koy yabe weg bi amoon maam nit ñi réew ba ëpp wala kilifa yi ñoo bàyyeetul xel euh, liñ jiite lan la ba nga xam ne que nit ñi daal da ngay seen képp ku ne war a rus rek léegi di nga gis ku ko ñàkk a rus loolu ëpp. waaw xam nga kilifa moom bu ñàkkee sàmm kàddu ku ne doonatul kilifa. Hmm. waaw ndax pour nga doon kilifa da ngay sàmm sa kàddu. Hmm. pour nga doon kilifa da ngay nekk nitug dëgg. Hmm. pour nga doon kilifa da ngay nekk royukaay. ci fànn xam suñu dafa wax ne laa yuhibullaahu jahra bi suu i minal xawli nee na suñu boom mukk wax ju ñaaw nga koy siwal waaw te Sëñ Tuubaa dafa ci wàccal saxiru naa yu waaxirul kabir wàccal kabiru naa yu xinu li yow suñu borom yàlla nga def mag ñi yërëm ndaw ñi waaye yàlla nga def ndaw ñi weg mag ñi xam nga nit ku nekk da ngay fexe tënku ci benn baat mm-hmm. xam nga baat boobu mooy loolu mooy alxadul mooy maandu ndax sëñ dafa wax ne kenn ku nekk ci yéen sa xawra na la sa sa xawra na la doy sëkk xayib sa xayib na la doy sëkk ndax ku ci nekk bu la sa yeb doy doo toll lijjanti kenn te gis nga lu ci ëpp seex li ñu dal lu ci ëpp mooy am temps bu bari waaw waaye nag daf da ngay dellu si ci la ma la waxoon ndax dama la waxoon ne képp koo xamante ni amu ay teggin doo gudd fan képp koo xam ne ñàkk nga kersa doo am barke waaw nit nag boo nekkee kilifa bu jubut sax xormaal ko. ndax loolu mooy sa warteef. waaw waaye nag ku ma xuri ma xuri la wala ku wax lu du noonu ma ne ko wax lu du noonu. Hmm. loolu bokk ci ay valeur nit moom da ngay da ngay fexe yar sa bopp. Hmm. boo yar sa bopp lépp luy lu baax. Hmm. da nga ko mën a wax lu dul lu baax boo xamee doy noonu. yonent bi wax na ko man kaa yu'minu billaahi wal yawmil aaxir falyaqul xayran aw liyasmut. képp xam ne gëm nga yàlla gëm bis pénc na ngay wax wax jiw munoo ko nga noppi. waaw kon nag. Euh, kenn kenn ku nekk ci ñun na tënku ci loolu xam ne kilifa it nag dañ koy wormaal kilifa yi du ñu morom te xam ne kilifa yi parce que Sénégal léegi doon fi sëriñ dafa yomb ku jóg rek sol boobu sol mbaxane na kilifa laa sa nitu diin laa déedéet mm. du loolu nitu diin ya defe naa ne xam nañ leen xam nañ fañ féete mm. nitu kilifa gii nag da ngay nekk royukaay mm. muy loo xamante ni bi ci xam-xam waaye rawatina cib judd su ko defee bu baax nga mat kilifa. léegi nag comme moom ku neex boo solee sa garaam bu sol sa mbaxane man sëriñ nangam laa. loolu nag mooy waral. loolu waaye nag teewut ña ko doon moom ña ko doon ba léegi. ña ko doon ña ko doon ba léegi. léegi lan wax ci ñi nga xam dañuy jox ndigal ñi war a joxe ndigal comme da ngay seen dëkk bi jaxasoo am ku naan kilifa yi dañoo war a wax kilifa yi dañoo war a def nii. mu mel ni ñi war a joxe ndigal léegi ñi war a dékku ndigal yi ñoo leen di jox ndigal. waaw ñu ko wax mooy ñi amul kilifa rek. lu ñu constaté ñun murit mm-hmm. képp koo xam ne am murit nga doo sañoo boo ko waxee rek doo murit sëñ bi daa war a wax am mm. murit du ko wax ñun murit ni ñuy doxee mooy ñun néew ay néewal yu dund lañ dox mm. sëñ bi lu ko lu lu mu bëgg ñun loolu la ñuy bëgg mm-hmm. sëñ bi lu mu bañ ñun loolu lañ bañ mm. ci loolu la nekk léegi nag ñi nga xam ne gëmuñu dara dañoo bari ci yëf yi mm-hmm. waaw léegi nag euh, ñooñu ñun limaalewuñ leen mm-hmm. waaw ñun lim daal mooy ñun ñi nga xam ñun ay taalibe di ay murit jàpp na sëriñ moom lu mu bëgg ñun ña nga ca xoolun lu tax sëñ bi bëgg ko intéressé lu mu bañit bañ nañ ko xamul lu ñu xam li tax mu bañ ko ñun foofu lañ tënku man boog maak ñi aju ci man waaw ci lañ tënku ñi ci des nag man sóoraale wu ma leen léegi da ngay gis say parfois euh, comme ku mel ni ñu ngi koy xam Askia Touré ak Ndiaw Fall ci or yi daaw dañu màggal ba pare ñu am polémique boo xam ne que am na nit ji di wax te defe naa nit ki moom bu amee oram takk ko moom moo xam mën naa dugg ci euh, salle de bain bi sangu jàpp julli jàng xasida te doo yëg mën na jàng alxuraan te doo yëg takk or defe naa araamul mais day dem ba léegi tamit euh, nit ñi bëgg ko def mu bokk ci modd ñeneen ñi di ko critiquer nit ñi wute ci ñaari gis-gis maanaam ñii mën na koo tagg ne sañse ba rafet na ba wax ci bu baax ñii tamit ñëw xas ko ne lii indiwu na fi màggal du lii loolu boo amoon conseil boo ci joxee ak maandoog yooyu lan nga ci wax man nag konturuma ko déedéet ndax xam lu ko waral bu ko neexee da takk ndax li ko waral mooy ak cant dafa war a fees man su ma amoon ay jamaa photo yu jamaa bu màggal gaa dama koy génne teg ko. dama koy ñëpp xam ne toogaay ngir sant sunu borom sant li sëñ Touba. Mm-hmm. sunu borom ba pare sant sañ tubaa ndax gannaaw yàlla moo tax mu am. Mm-hmm. wàññiwut dara. wàññiwut dara ndax xëy sant dafa war a mat. Mm-hmm. xam nga dañoo wax ne cant dafay nuuru ak yàq. waaye cant. sunu borom rek moo mën a ràññale kiy ngisal. ak kii kii sant ndax loolu ci xol lay nekk waaw waaw waaw loolu kon nag wàññi dara am say or takk ko daal mm. am sa yéer yu rafet sol ko ci bisu sëñ Touba bi mm. am sa oto yu rafet di ko dawal ci bisu sëñ Touba bi am say kër yu rafet di ko wane ci bisu sëñ Touba di wane ne maa ngi naa ci waaw lool kon daal ñenn ñi ñu ñëwul baaga yi dérange ko kon bu am or yi kon garaawul ak yu mel noonu léegi yow bu doon tamit dafa am benn discours mm. euh, boo xam ne que yow bu doon da nga toog ci cérémonie officielle bi moom ngay wax mm-hmm. ñu jox la juróomi minute nga war a waxal réew mi lan ngay wax. ah li may li may waxal réew mi mooy dama leen wax nit ñi nañu delloo ci seen xel. Mm-hmm. te xam ne àdduna bi wamal xayaata dunya ilaa mataal xuróor. Mm-hmm. dañu wax adduna adduna matiyatul axira maanaam adduna passage la rek pour dem alaxira mm-hmm. te adduna xéwal yi fi lay yem. waaye alaxira nag mooy lii sax. adduna day jeex. te alaxira du jeex. adduna lu neex neex neex seex day jeex pouvoir bi lu mu bari bari bari day jeex alal ji lu mu bari bari day jeex wér gi lu mu bari bari bis dina ñëw da koy ñàkk mu jeex kon nag loolu kuy xalaat war nga xam ne luy jeex doo ko ñàkkal doo ko amal ci lu jeex sëñ Tuubaa dafa wax laa tasi duñaa bi xuraa yaa fataa man baa andoon bi dujaa fas yéene ba bu jël mukk sa adduna jënde ko sa alaxira kenn ku nekk ci nu nag boo dee xalaat loolu dana tegu ci aw yoon ndax am na ñoo xamante ni dañoo jàppee àdduna kër ba duñ xalaat ëllëg am na ñoo xam tey bu ne la woon am milliard ngi nii boo ko jëlee da nga dem sawara jaral leen jël milliard bi parce que duñ ko sóoraale sawara wallaahi boo tegoon milliard bi da ko jël dem sawara ku ñëw daana bari mbooloo mu ko jël kon foofu ngay xam ne am na ñoo xam ne seen xel dem na am na seen am na ñoo xamante ni bii amuñuy xalaat kon damay wax nit ñi ne leen loo xam ne day jeex. képp discours sëñ Jili Fata bu baax nag. képp koo xam ne képp koo xam ne yaa yaa ngi dund. da nga xam li ngay def. da nga xam li ngay wax. ndax loo xam ne day jeex seex. am na loo xam ne jëru ko. jëru ko ndax tey jii waa Kër Sëñ Touba yi. ñëpp jógee nañ fi. ana yonent yi jógee nañ fi. bi at bi bu set nga gis kilifa gu baax goo xam te lépp yàlla joxo na ko mu jóge fi. mu lekkoon foofu ñu dañ leen fi fekk ñu bokk fa ne kon kon képp ku koy xalaat. dara àdduna du la jaral yenn yi te da ngay gis nit ñi ni ñuy doxee. ak ni ñuy defee dañoo jël adduna def ko muy kër. def ko muy kër tudd kër. waaw tudd hmm. kon nag léegi nag loolu nag bu fekkee ni bii nekk na ci yow. defo yi ma doon muy xay bi yëpp day day day jóg mbax lu baax rek ngay fas yéene def ak a wax. Hmm. lu dul lu baax doo ko def doo ko wax. léegi nag loolu parce que parce que loolu mooy nekk saxal léegi nag bu fekkente ni yow sóoraale woo ëllëg. Hmm. da ngay jàpp ne adduna la. lu neex ngay wax. lu la neex ngay def. te loolu nag ñaar yooyu nag mooy waral ëllëg ngay rëccu. waaw moo tax daal li may digal képp koo xamante ni bii yaa ngi dégg di seetaan. mooy loo mën a ne ci jub nañ ca góorgóorlu. Mm. loo mën a ne ci jaamu yàlla nañ ci sax. Mm. tey bàyyi xel ëllëg. waaw tey bàyyi xel ëllëg. waaw. jërëjëf sëñ Djily Fata kon euh, nga ñaanal réew mi ñaanal sëñ Abdou Fata ñaanal sëñ Mountakha ñaanal ñëpp sant gërëm. ñi jàpp ci bis bi maanaam ñi nga xam ne sa wóor la réew sa ñoom Ibrahima Diop ak ñëpp koy sant ak gërëm. waaw man daal maa ngi sant mbokki taalibe bi yëpp rek di sant ñëpp ndax taxawaay bi rafet na. Mm-hmm. taxawaay bi kenn rek moo ko waral muy borom bi bis muy Serigne Touba. Mm-hmm. waaw kon nag cant ki moom dugal naa ci ñëpp. di leen sant bu baax. di ñaan sunu borom Touba ko sëñ Touba bi nga xam ne moo tax ñu ñëw fii daje fi. Mm-hmm. sëñ Touba moo tax ñu jël suñu yàq jëfe ndigam li ñu digal nañu fay rek. xam ne sëñ Tuubaa moom jàpp naa ne du tas yaakaar yi kenn jàpp naa ne képp koo xam ne defal nga ko la ko defal du ko suñu baa waxee inna lépp loo def tam tax da nga gis récompense bi ci dunya wal aaxira kon nag yàlla nañu suñu borom bi taxaw te jàppal la baax seex yow sama xarit nga tàmbali gi li nga wax mooy couleur gi mm. ci yow mi laa koy xoolee ndax yàgg nañ tey waxtu woo Touba boo fi ñëwee lu mu xat xat loo ko occupé da sëñ ji moom du ko romb doon damay dem gis waaye loolu nag ci colère la kon nag loolu nga may wax noonu mu ngi parce <laughs> que moom moo lay woone la defal lii ak ah, nangam jox la conseil yoo xam ne ka day baax moytu lii defal lii ak nangam a ah, xam naa yéene bi parce que ñun bu doon toog at duñ déggante mm-hmm. xam nañ li nekk ci xol yi mooy jàmm nga ma yéene moom laa la yéene avancement nga ma yéene avancement laa la yéene ak jàmm ak mucc ak xewal ak njaboot gi yëpp mais suñ bi nag sëñ bi dafa loolu waaw suñu bis bi daal seex suñu seex ñu ngi koy waajal. ñu jàpp nañu sax la 14.

moom xam moo ko daan assisté assisté maa ngi gis keroog vidéo yi rek bàyyi bi ñu ànd di ko nuyu ak sëñ Tafa noonu moo tax nag ren incha allah moom lañ ko tuddee moom lañ ko bëgg a tudde bu soobee yàlla incha allah incha allah kon ngeen bàyyi ko xel bu baax a baax journée fàttaliku sëñ Fàllu 14 janvier ca Cissesse bis bu mag bi date bu mag bi euh, ñu ngi ko tuddee dañuy commencé tudd leen wala waaw sëñ Mamoor rek sëñ Mamoor rek sëñ Mamoor sëñ Fàllu ah. rek tàmbale rek <laughs> docteur moom dafa bëgg sëñ Amadou Rafaay dina ñëw. waaw ah, dina ñëw bu soobee yàlla Rafaay dina ñëw moo koy moo koy waxtaan bu soobee yàlla moo koy waxtaan waaw. baax mi ngi liggéey ci diine ji lu am solo. yàlla yàlla barkeel bu a baax. incha allah mhm. ngeen bokk. Mhm. ko a xel sëñ Jili Fata leen ñëwoon fii di leen gërëm ñi ànd ak équipe technique bi ñu àndaloon moom it docteur Wade bu Casamance euh, Petit Sow nekk ci euh, masamba Diop nekk ci euh, ba mas gërëm na masamba Diop tamit Derkele Massamba Diop mm, mu sëñ jili mu koñ ba moom dafa yabante gars yi <laughs> Massamba Diop waaw bokk koñ waa Derkele yëpp ah kon xewal dikk loraa dakk jaajëf salaamaaleykum mbokk yi seetaan Tektal TV ci màggal bi ñiy ñëw ak koo xam naka ku spécial ci bis bu spécial kooko di kan Cheikh Assane Fall Serigne Assane Fall borom géejawaay monument sëñ Saliou ak foire sëñ Assane Fall ñu ngi lay nuyu. aawuzu billaahi mina sheytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim ba ñu sant yàlla jul ci yonent bi ñoo ngi saa sëñ Mountakha Bachir di ko ziar di ko ñaan mbàkk mu yàgg fi loolu te di la nuyu di wax ne amati naa mbégte mi jàkkaarloo ak yow fa tabarakallaahu ci chaîne bu màgg bii di Tektal TV fa tabarakallaahu wasalaam jërëjëf euh, sëñ Assane Fall ñoo gën a am mbégte ak kontaante mm-hmm. ci fekk si la fii ci màggal mm-hmm. ñu lay mm-hmm. yàgg fekk fii muy sa kër lépp sa wóllëre nga xam ne que benn ngeen du ngeen ñaar muy sa njiili fata falilu nga am foo ko teg lool moom fu la teg lool ba ñi leen bëgg am fu leen teg jërëjëf waaw sëñ Cheikh sang bi moom awma leen lu may wax ci moom loolu di ko ñaanal ndax euh, yaakaar naa nit yàgg na lool ci yoon wi Euh, euh, cër bi ma am nii nit yàgg na ànd ak moom wala nit yàgg na ci yoon bi xëy na amu ko daf ma koy faral di wax ne ma ah man de Seex sëñ Assane boobu ba ma la defee laaj ci pare ndax cër la rek boo xam ne dafa nekkoon sama loxo moo leen ko teg sa loxo waaye maa ngi koy ñaanal lool ndax di nga gis nit tamit nekk ak yow di la liggéeyal di def lu mu mën ak lu mu mënul waaye sëñ bi jël garaatu cheikh boobu teg ko sama kaw ba pare saa su nekk di ma ñaanal di ma ci jàppale di ma pousse démb nee na ma lenn moo ma gën a neex ci yow mooy kenn mosuma kalaame ak yow ba ma la léegi bi léegi daal nit masul ñëw kalaame ma ak yow ma ne ko mbàkke ñu sa keppaar lañ yaroo kon duñu def lu ñaanal sëñ bi rek te fas yéene liggéey sëñ bi rek di di ko liggéey rek <laughs> léegi boo doon wax ci melokaanu taalibe lan nga nuy wax waaw taalibe moom cheikh euh, kenn mënu koo ñàkk ndax nit da nga kilifa hmm. ndax boo seetloo ci yoonu murit ñëpp war a roy maam Cheikh Ibrahima ki nga xam ne fa tabarakallaa bu dul woon ak moom tey sëñ Touba dina ñëw ba dem te kenn du ko xam Cheikh Rafal dafa wane yoon yi boo gisee sëñ Jil Abdou Fatah lu ma gën a neex ci mooy dafa dafay dox doxinu Baye Fall doxinu Cheikh Ibra Fall doxin woowu laa gis muy dox ci moom loolu ma gën a neex ci moom ndax boo gisee digganteem ak waajuram xoolal cër bu mu am ci sëñ Fallu xoolal cër bi ko yàlla def waaye gis nga ko dafa boo ko gisee diggante moom ak ak ak ak waajuram hmm. sëñ Abdou Fatah da ngay defe ne sëñ Jili moom moom moom mooy bëkk néeg ba ak Pastef ga ak jàmbaar ga ak ak ak taalibe bi kon nit lépp loo mën a am rek taalibe moo la koy may ndax nit Cheikh man na jàng alxuraan ba ne xar nit man na am alal man na am lépp mais taalibe kooku kooku kooku mooy lépp boo ko amee am nga lépp soo ko ñàkkee am nga lépp waaw kon ñu boo ko ñàkkee ñàkk nga lépp kon yaakaar naa ne am am am am doon taalibe moo tax nit fu mu bëgg ak mu àgg si yoon bi damay gis benn waaye ne waa yéen murid yi da ngeen a ah, dangeen ngeen ni li ngeen def ci màggal gi li ngeen di ay looloon dajale ak atu yàlla jël ko def ko ci benn bés mën na ko ñun màggal gi la ñu ndax gis nañ ne saa yu ñëwee ci màggal gi rek bu ñu demee dañ lañ daan man ren déwén dañu mën lu ko waaw waaw waaw kon kon <laughs> waaw fa tabarakallaa moo tax duñ nangu kenn rawuñu si te lépp lu ñu am rek fa tabarakallaa dañ ko si def waaw koroog ba ñuy waaj ñëw macha allah jël nañ lu ñu am ak lu ñu amul lépp def ko ànd ak sëñ bi xeeb ko raam ñëw jébbal ko mboolem lu ñu liggéeyoon rek ci <laughs> jox ko sëñ Fallou rek waaw <laughs> yow xam nga si dara yow xam nga ne ñun ñun lépp lu am rek jox nañ ko sëñ Fallou waaw te te te te te eh, ba may ñëw ci Kazu Rajab bi defoon accident bañ woo bañ ba ba ma woo yaay sëñ Fall ne ko sëñ Fall wàcc na. Hmm. sëñ Fall ko dekkilaat indi ñu ñu ngi toog bay wax ak yow. dafa ndax ah euh, autoroute à bi. Hmm. mboolem kilifa gu ci def accident kenn nettaliwu ko. Hmm. damay wax benn waaye na barki Demba Ndiaye na ma ah santal yàlla ma ne ko damay sant sëñ Fallu ndax doo ñëw ci màggalum sëñ Fallu du ñibbisi sëñ Fallu di la seetaan ngay dee dee gu ñaaw. te ba may ñëw ay millions yi bay laa fi def. te sëñ Fall dong nga tax ma di ko def te moon xajoon na ci man xajoon na ci ci leneen mais damaa jël lépp def ko sëñ Fall épreuve boobu nag ba mu demee ba ñëw gis naa ci yokkute goo xam ne dama naan waaw lii moom yéex naa am li ndax waaw ndax macha allah sant nañ yàlla ne bañ ci jógee gis nañ ci yokkute kon euh, am na loo xam ne suy ñëw mënul ñàkk àddina loolu mënul ñàkk waaye pour wax leen ne lu lépp cheikh taalibe rek ndax bu ñu amul woon taalibe liggéeyuñu woon sëñ Fall amuñ cër ci yoon bi mm. kon kenn waxatu ko <laughs> li ci gën a am solo ci bés bi mm-hmm. du ay sañse du dara mm-hmm. bernde waaw soxna si moom boo waxee mu ne yaw yow yaa moom sa addiye joxal sëñ bi waaye man maa moom man sa sa samay bernde jaamu yàlla laay bernde man yow moom <laughs> joxal sëñ waaye man man moom mu lijjanti jaamu yàlla nga xam ne lépp lépp rek cant la mm-hmm. waaw ndax gis nga ko daaw bañ fi ñëw métti woon na lool mm-hmm. daanaka oto sax dama ko abboon waaye tey benn waaye ñëw fañee dawal oto bu rafet may ma ko na ma bu tuutee ci yow ma jox la 4-4 pour wax ne loolu taalibe a am mm. ngaa bañ am dara waaye toujours sab taalibe mu li dimbali. moo lay dimbali macha xam nga li ma la wax. da ku daan may ay oto dem ba mu jóg amatoo dara. Mm-hmm. nga def accident ñu naan jeexal na sëñ faal na la déet épreuve la. daanaka nga nga nga nga mel ni ku jógee ci ku ku daanu woon ba ci suuf commencé jóg loolu mënum ñàkk. Mm-hmm. da dafa am ay ay ay ay ay natt yoo xam ne suñ boom da koy natt wàlliwu yi natt na ko Muhammad saa sallam natt ko sëñ Touba tey moo waral màggal gi. Mm-hmm. ndax su ko nattoon du ko jël yóbbu ko Mayombe ak lu xew yëpp boole ak Touba bi. ñu fitnaal ko ba mu ñëwaat. kon tey bu ñu demee ba dajal tey di di di sant di sant kon looloo waral tey ji yëf yi waaw pour wax ne lépp rek ci xeetu ci xeetu sant rek la waaw waaw jërëjëf euh, sëñ Assane Fall fa tabaarakalaaw ku loo tegaloon milliard ne la tabaarakalaaw boobu nag <laughs> da da ngay fay droit d'auteur kooku sama yëf la moo tax ma ne la ku la tegaloon milliard waaw bëgg laa tere fa tabaarakalaaw noo def <laughs> loolu loolu loolu nekk yow Cheikh dama lay sant ndax ku ñàkk keñaan nga waaw ku ñàkk keñaan nga ku ñàkk keñaan nga di wax rek ne nañu ñu dellu lépp ci yàlla te xam ne toujours doomu aad fi àddina la kenn dëkku fi li ci am solo rek mooy fexeel ba boo fi jaaree ba ba wàcc wala ba jóge fi ñu ñu netti lu rafet ci yow waaw joxe ay milliards ak joxe millions téeméeri nag yooyu yëpp baax na mais li ci am solo rek mooy mooy am taalibe koo tani nga dimbali ko ah bàyyi bàyyi puukare yeeg bàyyi yenn yeeg bañ naw jëf looy def rek def ko te yàlla rek tax waaw man naa ba xam ne àddina ndeke loo def te dafa te yàlla tax nga ko kon nañ gën a takkuwaat laxasaa yi gën a liggéeyal sëñ Touba te xam ne sëñ Touba moo fi nekk te xam ne Cheikh Ibra Fall wan nañu yoon wi ndax mayu mayu may li am na cër yoo xam ne euh, dara mënul aj màkka mënu la koo may jàng alxuraan mënu la koo may fanaanee naafila mënu la koo may xam nga lan moo la ko mën a may mooy ñaqal waaju ba am ngërëmal wayjur am ngërëmal sëriñ te yàlla ñu ko yàlla defal waaw jërëjëf sëñ kontaan nañ bu baax a baax gërëm nga tamit Fatou Diagne Fatou Diagne di sama sama sama soxna yi baax yi sama sœur yi ak fa tabarakallaa sama frère bu baax bi nga xam ne tey jii bu sañoon tey àddina maa fi gën waaw waaw waaw ji leen gërëm ñoom ñëpp nag ndax dañoo bàyyi seen del bàyyi lépp hmm. ñoo seet si ma ñii ñooy samay mbokk waaw moom ba ma leen gisee sax dama friwaat waaw waaw di ñaan yàlla yëf fi gën a yaatu hmm. ba ëllëg ñu ñëw di ñu fekk suñu étage ki immeuble yoo xam ne ñoo ko moomal suñu bopp fa tabarakallah yàlla am na ko yëpp yomb na ko yàlla defal kan doon jàmbar ci màggalu Tuubaa bu baax a baax a baax a baax kon gërëm nañ équipe technique bi ñu àndaloon moom it docteur Wade Casamance bu Casamance. Mm. du Robel nag dafa dëkk foofu rek mm. Petit Sow. Mm. Euh, Thiès euh, Baye Massamba Diop Derklé gërëm nañ Fatou Diagne tamit bii lay seede nekk fële ca borom restaurant bi. restaurant bu neex la moom yaakaar naa moom faa dem defee foofu émission benn bés moom incha allah incha allah. kon Fatou ñu ngi ñëw Fatou Diagne ah ñu ngi ñëw ci restaurant bu neex bi yu baax lay esati di ko kii restaurant boobu moom moom moom foo ñu wane ko Tektal TV àdduna gis ko képp ku nekk Paris di dem foofu di fa xewloo surtout ñu sant njaay bu baax a baax kon gërëm nañ Ousseynou li Allemagne Mamy d'Enfants France ñëpp ñi nga xam ne que ñi ngi seetaan Tektal TV xewal dikk loraa nga dakk kon ku bëgg ñu wér yaa ngi liggéeyal sa borom Cheikh Serigne bi nee yàlla na la yàlla jàppale ba nga yegg fi nga bëgg a yegg jërëjëf jërëjëf yàllaa ko def ci xolu nit mu xam tamit lii téye loolu nga xam ne que nit nit la taalibe Sëriñ Fallu la taalibe Sëriñ Fallu mais ñun suñu sëriñ ndax euh, fi mu teg yoon bi ko xool dina dina naw yoon ñi kon man fu mu ko am na benn waxtaan mu fi dugal fu mu ko dugale li ñëpp ci nit di bëgg ci Sëriñ Abdou Karim ne ma kii ngir yàlla laa bëgg a gis léegi moo tax chaque màggal dama fas yéene mu gis ma mu ñàkk ma gis naa dugg doon ne bu ma fi am juróom mil bu ma ko gisul ma jël taalibe yi wane dem ndax sama ko def comme sama kër ndax suñ ki Ousseynou mi xam na ko ni ma mel ci sëñ Abdou Karim ndax euh, di ko ñaanal mu yàgg tuuti woon xam nga koo xam nag bu Sénégal ñëpp mel ne moom Sénégal jag wax lu ne ëpp na musul def lu na ndax lépp dafa ànd ak ak yar ak teggin mu bu bu defarwaat te bu jàpp ne moo sëñ Fall sax kon daal li ngay ñaanal mu yàgg te wér ba am ci lu kawe njort fii daal man gëm naa ne xalaat ndindi xel mi dem ci yow xalaat sëñ Fall xel mi nee na yàlla na yàlla fay. jërëjëf suñu Cheikh jërëjëf. kàddu yi rafet na jub na lu ah nee na tegtal mi ngi doxal wàlla bu baax. ñi nga xam dañoo wax ne mën nañoo faj jaam ñi. yaa nga leen di laaj. ñu di la leeral. loo xam ne bu ko nit ñi defee ñu am wér yaa ngi leen ci soññ bu baax loolu nag yàlla moo la ci fay jërëjëf Cheikh waaw. saa su la mooy sunu télé Tektal TV moom la Baye Fall lii wër barke siñ Abdou Karim dañ ñaan yàlla seen liggéey bi yàlla na yàgg yokku te wër ci barke suñu kilifa gi sëñ Abdou Karim Mbacke Fall ca kaw ca kanam rek Tektal TV. jërë ngeen jëf mbokk yi seetaan Tektal TV ñi ngi fii ci Ndindi kër sëñ Abdou Karim Mbacke borom makaari axlaax doon koo xam na que ku baax la ku sel la koo xam ne que ñëpp ko bëgg ku jullit ak ku dul jullit mu doon foo xam ne que cosaan la ci ñun ëpp na Tektal TV ñëw màggal ba dellu te jaaru fi taataan si. sëñ bi fattu na wala fattuwul dinañ ko jéem a gis lu luñ fi gisul dinañ taalal loxo taalibe yi jël ko ndax fii suñ kër la ñun sëñ Jili moom sëñ Fàllu mooy suñ waajur mooy suñ euh, sëriñ mooy suñ waajur comme juumuñu ni nga koy waxee di nuyu ñëpp ñi nga xam ne que ñu waa kër sëñ Fàllu lan bàyyiwun kenn euh, sëñ Abdou Karim nag gis nañ kàddu yi mu yëkkati seede yi mu yëkkati chaque jour daf ñuy gën a ñaax daf ñuy gën a wan bu baax fi ñu teg suñ tànk foofu la ñun nag xam nañ kilifa yu ñuy seetaan kon dinañ sàmm bu baax lu ñuy wax ak lu ñuy dox ak ku ñu indi dégg ngeen ko li mu koy waxee comme sëriñ buñ fi invité ngay wax waxal te yàlla tax ñëw pour jëriñ askan wi te yàlla tax te bañ leen lor benn côté bu baax a baax ndindi mbir mi mi ngi fi fii ku fi ñëw boo jàppal ne boo xasee dund dugg ndindi fasal sa soxla fasal sa yéene te jàpp ne sëñ Fallou mën na kanamam mën na ginnaawam kon sëñ Abdou Karim Mbacke fu waay mën a nekk ci àddina bi boo mënee wax sëñ Abdou Karim yàlla na fi yàgg te wér nga mën a wax sëñ Abo Mbacke Falil yàlla na fi yàgg te wér nga mën a wax sëñ Muntaxa Mbacke fi yàgg loolu te ànd ko wér ak bépp kilifa diine ñu yàgg mag fekkee màggalu Touba tam ci Pastef boo xam ne que kenn du ci man bis bii ku la ci raw raw na la ba faw Tektal TV nag lii suñ domaine la fii suñ kër la fii duñ fi gan kun fi waxul yaay kan doon wax ñooy kan sëñ Abdou Karim wax dëgg yàlla amuñu sa fay sun xeebu sun tuutiwaay sunu yaafus sunu yii chaque jour nga sagal ñu yëkkati ñu ah gërëm nañ ñëpp ngi sëñ Galas Jatra gërëm nañ euh, Ousseynou euh, gërëm nañ ñëpp daal wax dëgg yàlla ku bëgg a lim euh, da ngay juum gërëm nañ kii Baye Fall nu mu tuddati ñëpp daal ñi nga xam ne que kan si banaana gërëm nañ ko banaana xaritu docteur Wade gërëm nañ ñëpp sëñ Abdou Karim Mbacke mi daal borom makaarimal axlaax di ko wax yàlla fi yàgg lool ta ànd ko wér ak képp ku tudd ci kër gi galas ak képp kuy Baay Faal ko fi nekk xewal dikk lolaa bika zurriyataha min ashaytaani rajim rabbi auzu bika min hamazaati shayaatiin wa auzu bika rabbi an yahduruun barke borom Tuubaa ilayka yaa xayral bariyati salaam خديمك الذي كفيته الملام إليك يا خير البرية سلام خديمك الذي كفيته الملام صلى عليك أبدا مع السلام fi alaali wal asxaabi rabbuna salaam xusta maqaaman duunahu kullu maqaam yaa nuura kullu xaabidin saama waxaam anta alladi axrajana min asalaam bika li nuuri man habaaka bilkalaam بشرك الجميل يا خير الإمام بما نويت فيك ينسى تمام أنت النبي والرسول والأمام بك انقياد صالحين بسمام لك لدى رب الورى كل مرام لك بغي يا سيدي أصنع احترام جاد لنا باخ تعالى عن منام بك فأنت شيدي خير الأنام نويت شكره عليك كلها وكل زار والكتاب للدهام نويت شكره عليك بالخلام وخيرها يا ساجوا مع الكلام هديتي خش كرما بالانسرام يا خائدا لي من إلهك المرام تبت لرب زائرا بسن سام لك وخبله حبوت بالعظام أسير مع الأبرار غنى أسير wasala li daani hunaaka asiiru asiiru mahal abraari hina asiiru wasana li daani hunaaka asiiru masiiri mahal axyaari lillaahi binnabi wa maali ilaa xayril kariim yasiiru أسير مع الأبرار غنى أسير وظن الهدى أني هناك أسير خلور وراك نسار بكيدي وسن سنونا وسنون خرور لرب اتفاق لا لوم تائبا لوم من الجنف والآباد وهو الأزير يصنونني وقتا بربي لديهم أسير والكل سميور خيارا مسارا لسياتيني والعواء أسير والكل سميور هو الكنس والكبرير والسعادة للغناء بيتا في نار خدا وشبور كتاب كريم كريم مكرم لعبد كريم للكفور يدير كتاب مجيد من مجيد ممجد لعبد مجيد للقديم يمير على من بي قد جاء أنا منه منصرا salaatun taxiini su su asiiru déglul ma wax la la waral màggal ga nga xam ni Cheikh Bamba rayal demam ga déglul ma wax la la waral màggalam ga nga xam ni Cheikh Bamba rayal demam ga sababu xaybat ya an allaha arada an anala minhu jaa waa an akunu shafian li qawmi wa an akunu xaadiman fi dawmi Cheikh Modou Moustapha moo indi raay bi moo fi def jumaa ji ku sopp Cheikh Moustapha al Karim Cheikh Modou Moustapha moo indi raay bi moo fi def jumaa ñoo ngi jégaluwaat bu baax tey siyaare Serigne Cheikh Taalif ah, di jégalu ci bayit yi nga xam ne si daanaka ci mbetteel lañ ko jële sax waaye day ndigal ci sëriñ bi tey fi ngeen ñëw fu mat a ñëw la ndax damay wax ne moom mi sët la ni sët yëpp bokkee ci sëriñ bi ndax Cheikh Darou Assane sët la euh, euh, mbokk la ci sëriñ tubaa moom mu sëtoo fa kon ni njabootu sëriñ Touba gépp di màggale bi su sëriñ Touba bi moom mii noonu la koy takkoo ànd ko taalibe sëriñ Touba yi di ko màggale noonu te ba weer wi teroo ba tey daanaka laataa weer wi sax lay def ay réunion yoo xam ne lu jëmmal bis bii rek la di ko ànd ak fondation Al Karim bi nga xam ne. lépp loo xam ne si ni sëriñ bi bëgg na ko rek ba joxoñ ko ñoom noppi na noo am jàmm fii ak loola sottiwul loola nag ñu xam ca lu baree bari ndax ñoog ñoom ñooy ànd liggéey bi ñu ñu taxaw ci taxawaayu jànkatu xasaayit waaye seenug bëgg bëggug sëriñ bi la te bëggug sëriñ bi mooy bëggug sëriñ Tuubaa kon ni ngeen ko gisee rek ak yi ko weesu yëpp noonu lañ koy taxawee nga xam ni daanaka boobaak léegi nii bis bu nekk rek danañ fi tëral ay nag di ko rendi ak ay xar ak mbooleem lay ànd ak moom di ko jagleel sëriñ bi kon Cheikh Moustapha yal na yàlla fay la ci barke Sëriñ Tuubaa xasaay di jërë ngeen jëf jërëjëf jërëjëf macha am na solo bu baax a baax euh, kàddu yi rafet na te yéen ñaar xam naa moom wax ci moom day yomb ci yow ndax benn ngeen euh, am bis doxul seen diggante daal te ngeen ànd ànd dëgg yàlla na ko yàlla saxal bu baax a baax ak képp ku bëgg lu baax léegi kon dañuy jox euh, njiitu daayira jàmm gën Touba jàmm gën sëñ Jibril seen nga yëkkati yu kàddu ci bés bi. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala yéen mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu leen di saaru baax ni leen baalu xaq leen baal xaq ñaan borom bi borom bi dafa ñu ab tawféex adduna ak alaaxira ziar bi ñu ngi ciy jiital sëriñ Muntaxa ñu nga xamante ne moom mooy eh, kilifa yoon wi moom moo fi nekkal seexul xadim mi ñu yaakaar ñu ko ñaanal borom bi gudd fan ànd ak wër naal yii muy naal ci yoonu murit borom bi defal ko lu kawe njortam dal ko fi yàlla yàggal macha allah di ci teg mm, sunu sëriñ sunu soppe sunu xarit mooy sëriñ Moustapha Ndiaye al Karim moom it wax dëgg yàlla macha allah euh, ñun ñëpp xam nañ jàmbaar la ci yoonu murit jàmbaar la fi mu feete janatu gi jàmbaar la fee mu feete dakaar ñu ñëpp ñu fay tase ci moom ñuy cité Mandela ñu fay tase ngir lan ngir yoonu murit gën a jëm kanam sunu côté be cité Mandela ñu ko ñaan bu baax a baax borom bi may ko ci ab tawféex borom may ko ci ab jàppandal lépp lu mu yaakaar rek borom bi defal ko li kawe njortam Serigne Moustapha Ndiaye ñaan ko baax a baax rek borom bi yokku fan wa li ci teg euh, daaira Mawaahibu Tuuba Jamagan mii nga xamante ne ñu ànd ak man ñëpp ñu ñëw ngir wuyu si wooteeg Cheikhul Khadim mi nga xamante ne kenn ko nekk walla kenn ko nekk xam nga njàmbaarteem xerteem liggéeyam nangoom gëm-gëmam fitam ci diggante mag boroomam ba am lii yëpp moom la kon ñaan boroom bi rek borom bi taas na ci barkeem boroom bi dafa ñu ab tawfeex sëriñ Moustapha daayira baa ngi nii mu ngi sa ko ci yow dafa leen ñëpp ay ñaan boroom bi yokkale bu baax a baax kenn ku nekk fi nga bëgg ak boroom baa ngi fi ci bàkki bi sëñ Touba mi nga xam ne moom lañu yaakaar boroom bi ak la foofu noonu li ci teg soxna yi ñëpp rek. kenn ku nekk fi nga bugg a àgg xam nga ko mbooloom bi àggaleel foofu noonu ñu ngi ciy jiital suñu waajur be mooy soxna Abi Diop mi nga xamante ne mooy sunu waajur moom tamit borom bi yàggal ko fi lool mu ànd ak am na sama beneen yaay bi nga xamante mu ngi ci suuf tànk yi ñoo xaw a eh, jagadi mais kon nee lay toog ñoom ñëpp ñu bokk déglu waxtaan wi ñëpp tamit déglu tamit eh, li ñuy dënk li ñuy ñaax ngir diine lislaam rawatina yoonu murit ñu ngi sant bu baax a baax a baax macha allah sëriñ Moustapha tax na ba dafa mel ni lii mooy sunu ñetteelu yoon ñu fi daje euh, saa su nekk rek ñu ngi sant borom baax a baax te ñaan boroom bi tamit maanaam daal bu weesu rek beneen bi gën a doon ab tawfeex te noonu rek la amee dafa mel ni biñ fi njëkkee ñëw biñ fi ñëwaatee am na changement. bi tamit wax dëgg yàlla am na changement parce que tawfeex liñ ko bëggee woon sax niñ ko bëggee woon niñ ko bëggee woon mel ni sax bu doon bëccëg bi ci la doon gànna euh, mbooloo mi ci la doon gànna uppee nii waaye nag yàlla ak jaam ak euh, bëgg-bëggam borom bi tamit ak ndogalam al insaanu mudabbir subhanahu wa taala muqtadir bil lughal macha allah tax na ba eh, li mënta ñàkk rek mooy lu mu guddi guddi il faut ñu ñëw jàkkaarlu ak yow présenté mbooloo mi ay tuut tànk lañ ñu ngi ci buntu àdduna dafa leen ay ñaan ba fi ñu bugg a àgg rek borom bi dafa leen loolu ni ñu ñëwee nii ren année bii di ñëw mu gën a am doole ñun ñu gën a am yéeg-yéeg ñun kat dem nañ Touba ñëw ci kër suñu Moustapha Ndiaye ak Karim wax dëgg la kenn ku nekk am kontante ndax li nga fa bàyyi mm, ñu ngi ci ñu ngi ñu ngi ñu ngi am ci wom ci yow yaakaar bu baax a baax def ci ay ñaan tax na ba euh, jawriñ sëñ Moustapha Ngaari yaakaar naa ñëpp mi nañ ko fii ci kër gi ci sama jarbaat la Pape Sarr kazalika ñëpp rek magum euh, Bounama Ndiaye moom tamit ci dara bi la bokk parce que day ñëw dëkk ba wax dëgg yàlla macha allah di ñu soññ foofu noonu wax dëgg yàlla macha allah murit ñëpp ay benn lañ soo ko soo kaane soo kaane soo kaane ci diini islam lu mu àndi al muslim axul muslim dafa ñëw ci mbirum murit murit boo gis rek su gisee morom morotam muritam daf koy def comme boppam daf koy sopp gis naa ko ci Bonaama Njaay mii ñëw na dëkk ba ñaata yoon wax dëgg la boolee boppam si ñun kon il faut que ñu jaajëfal ko ci kanam mbooloo kon jariñ bu na eh, wax dëgg yàlla fi ñu feete ñun xam nañ ko ñu lay bàyyi ak borom subhaanahu wa taala ak bi sëñ Tuubaa mi ñu yaakaar àddina ak alaaxira borom yëkkati lu baax a baax a baax ubbi wërsëg bi nag ba lépp lu yóotu rek boroom mbaa ngi fi ak bi sëñ Tuubaa borom bi dogal ko macha allah mm, tax na ba sëñ Moustapha sëñ bi bi xeeb nañ ko lool. Mm, waaye nag alhamdulilah macha allah eh, yàlla mu ngi fi suñ eh, suñu sañoon daal suñ sañoon daal mu ëpp ni lool mm, waaye nag li ñu naan yoon yi yemul ci benn li ñuy ñaan rek sakku ay ñaan bu baax a baax a baax lépp lu ñu bëgg a def ci gàmmu gi màggal gi borom bi mm, def ci ab jàppandaal ba nañ ko bëggee rek ñu amee ko ni ñu ko ñaan bu baax a baax. Euh, sëriñ Cheikh sëriñ Cheikh. sëriñ Cheikh Diop. yow suma mm. nijaay nga. ñu tamit ñu ngi lay ñaanal borom bi subhaanahu yokkuteef mm. bu baax a baax ba ngay ko mm. fii nga nekk mooy télé Tektal TV borom bi yëkkati ko ba fépp fu ngeen bugg mu àgg rek mu àgg fa ngeen bari ay clients ñu lool ci barkeb Sëñ Tuubaa ñu nañ ko borom baax a baax ci barke màggal bi macha allah kon salaamaaleykum wa rahmatulahi taala barakaatu. sëñ bi ñu ngi lay nuyu di la sant ñi ay séeréer lañ dégg ñu olof moo tax man il faut ma wax euh, bii mooy deuxième fois mu fi ñëw ñii ñoo may soxna mais chaque jour su ma yeewoo sa tur laa dégg si biir dëkk bi barki salaatu far su nekk feneen yàlla moo ma egg Ndakaaru chaque jour kaay ma wax ak la may wax. saa yi mu ñëw fi ma ne ko ñëw naa mën a fexeel dem gis sëñ Moussa ma ne ko man dama amul jot moo tax mais dañoo nekk ay séeréer yoo xam ne dañoo bëri kóllëre dañoo jàpp nit te fii lu fi daje yëpp muy toggkat yi muy jigéen ñi fi nekk yëpp ñëpp seen xol dafa rafet man taalibe laa jàng naa juróom-ñeenti at dama xam nit nit su ma xoolee rek mën naa la liir xam la mais li nga fi dajale yëpp li fi ñëw yëpp koo fi gis xolam dafa rafet sedd li ko war mooy yow miy jiite du ma wax si toujours si nit pour mu neex ko dama lay wax li nekk si yow yow li nga fiy dajale nii chaque année ñëw naa bee passé ñëwaat si étage laa ñëwaat dinaa ñëw si leneen leneen parce que sa jëmm moo ko may ma xamal la ñii ay séeréer lañu mais ñu xam kóllëre lañu ñu mën a jàpp dañu ñu bàyyi kii ku nekk foqar na ko mais mënu la bàyyi ku nekk foqar na ko bëgg na ko yóbbu fu nekk mais maam Ngor dafa nekk koo xam ne dafa mën a sàmm nit. am na kóllëre mun na xam nit lépp loo ko defal man wax na ma ko lépp loo leen sekk lañ ciy waxtaan maam moom mu ngi ni toog de waxuma ko pour nit ñee toog fi non non lépp lu ñu waxtaan loo leen waxtaan wala loo leen wax loo xam ne lu njëriñ la dama koy wax ne ma sëñ Moussa mun a fay mooy ngaari mi lépp loo leen defal man xam naa lépp dara umb ma ci ñoom dañu toog di ko waxtaanee parce que saa yi mu ñëwee village bi dama fekk même kii ngeen dem fekkuma fa mais wax nañ li nga fa def yëpp jarul yi nga fa def ak xaw ma keneen kooku xaw ma mais yëpp wax nañ mais yow dama bëgg nga gën a jàpp si li nga nekk parce que sa xol dafa rafet jëmm xol xol mooy nit xol sa soo sa xol su baaxul rek amoo dara lu baax nit soo amee xol bu rafet ku ku yéene lu bon day këpp ci kawam yow da am xol bu rafet li nga def nii fere fii yëpp dewin moo koy dàq te dina fekk nga wér ak sa njaboot parce que da nga ko def ni ngay doxalee lekk ni ngay xool xam nga gan lu mu mën a am gan su demee si dëkk toujours muy xool borom kër ga nu muy doxee man bu ma ñëwee fi bële maa ngi lay remarqué maa ngi xool nan ngay doxee parce que loolu la ñu jàngal soo ñëwee si kër soo bëggee yàgg si kër da ngay moytu jigéen moytu xale ñaare soo leen moytoo da ngay yàgg si dëkk ba ma tax yooyu lañ ma jàngal man bu nga ñëwee ba léegi maa ngi naan sëñ lekkoo parce que maa ngi lay jàng li ma gisoon si yow année bee passé année bële passé moom laay gisaat si yow nit doo tricher nit ki loo tricher tricher doo dem soo bëggee baax te baaxoo doo dem soo bëggee bon te bono dem da ngay gis nit mer léegi léegi mu rëcc war ko léegi léegi nga xam ne kii xolam dafa rafet comme xam nga lépp loo mën a def si aduna li nga yore mooy nit nga yore sa alal nga séddu ko ak nit nit am na alal bu du jeex mënu si lekk sax cent franc ñu ngi si hôpital yi partout soo demee da nga nit koo xam ne mu yore lu du jeex mais mënu si lekk sax cent franc yow li nga yore as lu mu néew néew yaa ngi koy bokkal ak nit ñi te aussi wax si rafet di ree boobu ba léegi lay jàng man bu ma ñëwee ba léegi dama lay jàng dama la ko nëbb maa ngi lay jàng di la xool soo toogee maa ngi lay xool sooy dox maa ngi lay xool parce que ñu loolu lañ ma jàngal juróom 84 laa dem jàngi alxuraan boobu maa ngi am 11 ans dégguma lu dul olof olof bi da caat ma kon dama xam nit yàgg tukki nag am nit yow nag yàlla na yàlla defal jàmm yàlla may la wér-gu-yaram may la kattan képp koo xam ne ñëw na fi li la fi indi yàlla nga ñibbil sa kër si jàmm yàlla may la xool bu rafet li nga uti woon yàlla may la ko yàlla dew yan nii déwén encore ñu dewee ñu ñëpp ku nekk yàlla yokku ba yàlla may ko tamit lu doon yow yàlla lu may li nga la loo doon def benn nga def ko fukk yàlla may wér gi nga talaat ko maa ngi leen sant leen gërëm merci. asalaamaaleykum wa rahmatulah taalaa wa barakaatu mbokk yi ñu ngi leen di nuyu leen siyaar di jiital ci siyaar bi kilifa gi toog mi sëñ Moustapha Ndiaye alkarim xam naa kàddu yi lu gàtt lay doon rekk ay kàddu cant la yàlla dafa dogal képp ki nga xamante ni taalibe la ci fondation Al muy taalibe sëñ Moustapha Ndiaye ma jiite leen du ab puukare waaye li yàlla dogal la ndax bari na ñi nga xamante ni ñoo ngi ci fondation bi ñoom ëpp ay at fuuf gën maa jàng alxuraan ndax man nasaraan laa jàng waaye yàlla dogalul ñu toog place gi ma toog ma ci ma ci wàcc sama bopp nag lool waaye kàddu yi ma bëggoon a yëkkati jëmale ko ci sëñ bi ay kàddu cant la comme ni ma ko waxee ci njëlbeen bi muy kilifa gu mët kilifa ku nangoo uuf njaboot ku am diine ku am lislaam bëgg nit rekk te yàlla tax ndax nun dañu ay ndaw bëgg suñ Tuubaa xaadim rasul te yàlla rekk a tax seen Moustapha nag nekk koo xamante ni yàlla def nu ko àndil ndax mën naa ne sax xëy na nun dañu róoroon waaye yàlla def nu koo àndil teg ko suñu kanam yàlla bëggu noolu ko boppam ñun ñu fa ñu nangu ko aussi topp te dañ koy fas yéene topp ba ilaa yow mi diin ci ay at de mën naa ne maguma waaye ku ma mët kilifaa ngi nii ku ma bëgg sama xol ku ma naw ki nga xamante ni yërmande la fees dell ci xolam te ñi nga xamante ni ñoom laa jiite ñuy fondation Al benn kàddu rek lañu am mooy di ko ñaanal yàlla boroom bi sàmm ko taxawu ko gën kaa dëgëral ba lépp lu mu nàmm ci liggéey gii rek borom bi dafal ko ci ndaw loolu rek la ñaan yàlla yàlla na yàgg sunu kanam waay yàlla na borom bi dafal ko wër yàlla na borom bi sàmm ko loolu rek la ñuy ñaan nun sëñ Vieux Dabo pour citer ko rekk ak sëñ aadama Fall Euh, bari na ñeneen encore ñu nekk ci fondation bi waaye waaw sëñ Moustapha Ngaari moom tamit moo ngi ci biir waaye damay site ñooñu rek xëy na ñun la yàlla teg ci kanam waaye fas yéene noonu fas yéene noo ànd ak sëñ Moustapha bés bii at bu yàlla at bu yàlla sàkk fas yéene ko ànd ak moom di ko màggal ka def ni nga xamante ni noonu la ko yàlla bëgg loolu daal lañ ñaan yàlla te mbooloo mi aussi maa ngi kontaan ci yéen bu baax gis nañ taxawaay ah li leen taxa jóge fi ngeen jóge ba ñëw fii borom Touba mi nga xam moom lañ yaakaar yal na leen fay yal yàlla defal barke bu baax a baax yàlla sàmm seen joboot sàmm leen na leen ba lépp li nga xamante ni moom ngeen bëgg rek yàlla dimbali leen. kon ñu ngi sant bu baax di gërëm di kontaan bu baax ci taxawaay yi te gën a ñaan rek sama mbokk yi ñu gën nekk doon benn gën a liggéeyal fondation Al ndax moom rek la na am ginnaaw yàlla ndax lii rek mbëgte la kontaante la kon ñu ngi jaajëfal ñëpp ñu kontaan ci ñëpp wasalaam. jërëjëf euh, macha am na solo kon léegi dina ñëw ci jigéen ñi. jox soxna Ndeye Anna Alkarim soxna Ndeye Anna Alkarim mu yëkkati kàddu. auzu billaahi mina sheytaani rajiim bismillaahi rahmaani maa ngi nuyu mbooloo mi fi nekk yëpp di diisal ci nuyoo bi nag suñu sang bi di sëñ Moustapha Ndiaye Alkarim suñu sëriñ Touba fële ca Fass Mbao macha allah jiite ñu ci fondation Alkarim mooy fondateur bi lépp lu baax loo xamante ne nii. ñi ngi ko soxla mi ngi ci lépp lu baax li nga xamante ne nii mooy jëmale nit ki kanam sëñ Moustapha Ndiaye mi ngi ci ndax euh, ku ne nit ki ñëwal ñu liggéeyal Serigne Touba kooku bëgg mu jëm ci kanam ndax sëriñ Touba amul ay tànk ginnaaw ay tànk kanam la am ba tax na sëñ mu Ndiaye ba mu fu ñëwee ba tey kenn jooyatul dara wax fa dëgg neex yàlla social bi mu ngi ci kaw kenn jooyatul dara lu waaye soxla ci sëñ Moustapha Ndiaye mi ngay am ngay ngay ngay jëm lu waaye xewle balaa mu lay neex ci sëñ Moustapha Ndiaye mi la jëm waxtu waxtuma nag ñu ñii nga xamante ne dañoo nekk ci biir fondation bi wax fa dëgg neex yàlla comme ci gisul mi ngi lay nemmeeku seet ci loo nekk ku ci feebar dina ci tànk xar tànk tubayam ku ci am location Ndiaye dina xar tànk tubayam muy fépp nag kon dañ lay ñaanal yow li nga bëgg suñu borom bi defal la ko ci barke Salaatul Fatiha li nga jug te yàlla rek a tax moo ànd ak fit ndax ndax du lépp du ñëpp mën lépp nag de fit rek mooy dem fit rek kon boo euh, lii nga xamante ne yaa ngi ko sumb yàggu ko sumb sax ba di ñu ci woo nii ñii nekk suñu Serigne Touba ci Fass Mbao na la yàlla may eggali nga eggali ko ni nga ko bëggee ci barke Seydina Mohamed ndax nag xëy na ñu xamul sëñ Moustapha Ndiaye bëriwul de ñu ko ñàkk ñu ko xamul bariwul ndax lépp ci koo sutura ak ci ko tekk ak la koy defee. népp ci ko sutura ak ci ko teg ak la koy defee kon boog dañ lay ñaanal sa jàmm yàgg lool yàlla yokk la ba nga yëg ko yàlla xéewale la lool waaw te li ma gën a neex ci sëñ Moustapha Ndiaye mooy su neexoon de toog xaar àddiya waaye def ko sëñ Moustapha day jël alalam def ci màggal gi forcé wul kenn kenn la forcé wul dina soo ñaate nag parce que nit ki boo ko bëggee dinga nga ne ñëwal ci liggéey bi parce que loolu moom moo koy jëriñ waaye xaaru ci kenn macha allah Ndiaye dina jóg dina takk ndiggam fii ci biir kër gi li ñu li ñu war a togg dina xool fu mu toll bu yàq jotee mooy yàq bu lal jotee lépp dara du manqué bëggul kenn manqué dara daf ñuy soññ saa su ne ku ñëw ci sama kër gi bu mu xiif bu mu ram bu mu rafle bu mu matt bu mu déglu ko naqari parce que loolu la xam ndax moom Serigne Touba ko tax a jóg. leneen taxu koo jóg ñun nag ñu ci ànd ak moom ba faw di la ñaanal nag tawu féex ak taysiir waaw ñu àndee ko ba faw ci barke Seydina Mohamed maa ngi jégalu nag dama mënul wax lool maa ngi jégalu bu baax a baax a baax waaye di la ñaanal gudd fan rek yow Ndiaye yàlla lafal la cat lafal la cat bu baax waaye ci barke Cheikhul Khadim incha allah. salaamaaleykum wa rahmatulah taala wa barakaatu. ñu ngi santaat yàlla bu baax bi mu ñu mayee ñu fekkewaat di santaat sëriñ Touba bu baax bi mu ñu boolee ci ay ñoñam ñu doon ay taalibeem di ko sàkku sax di ko doon di ko ñaan doon ay taalibeem faw ñu sante sëriñ tubaa nag ba noppi fu ñu jaar man sëñ Moustapha li ma lay wax chaque jour rek yow duma la gërëm dama lay ñaanal nga gudd fan ndax soo guddee fan lépp dina baax te lépp dina neex ndax mënoon nga ko nag li ndeyaana mi wax sëriñ tubaa mënoon na laa def nii mu la def nga toog di ñoddi loo xam ne nii du ko mate waaye nii nga àndeek ñun ci ak taalibe ci ak ngor ci bëgg ñu mucc ci bëgg man li mu njëkki remarqué li kii di wax ci yow bi ma lay laataa xam mooy say say say say valeur say qualité ci bëgg lu baax ni ngay saytoo liggéey bi ni ngay taxawoo liggéey bi ni ngay bëggee liggéey bi jaar yoon te ay ndaw lañu waaye dañoo fréquenter ay këru kilifa yu bari waaye maanaam ni ngay saytoo liggéey bi daa raar waaw dafa tumuranke da ngay digle rek sax nekk ca la nga ne waaye yow nii nga ñuy tegee ca man li ma ci jàng mooy que ni da ñun ñii nga bëgg a defar nit mën nga koo woo ci lu ne waaye ki lay woo kaa ñu liggéeyal Serigne Touba kooku danga nga ko war a jàppee si Serigne Touba ndax moom moo lay àggale fa moom kon ñun sant nañu ci xam gi ñu la xam sant nañ ci taxoo gi ñu taxoo yow ndax nit ki soo demee ba jël sa tur tànk tuddee ko ko kooku bëggatoo turam fay kooku bëgg nga ay yëfam di yokk ba faw te Serigne Touba amul tànki ginnaaw kanam rekk la jëm dina gën a neex dina fi nga bëgg ñu àggale liggéey bi dinañ ko fa àggale yàlla ñu sëriñ Touba musal ci cat ak làmmiñ ak seytaane loolu yëpp rek bu ñu ko moytoo fi nga bëgg liggéey bi àgg dinañ fa àgg te li kii di wax man des fois damay toog nit di wax sëñ mu Ndiaye Al Karim man je me comporte comme que ni la xamul. waaye barki Serigne Saliou Mbacke mosuma toog dégg fu ñuy waxee ak yow safaan mosul am bëgg na ay taalibeem bëgg na lii bëgg na lii bëgg na lii mu ngi leen jàppale ci lii ak lii waaw nit ki nag doo gërëm gërëm gërëm dangay gërëm ci fi indi xorom si waaw Serigne Touba ñu defal lépp nag mooy suñu lépp ñun man des fois su may wax suñu kër sax dañ naan man damay nekk say àll waaye ku wéet xam sa bopp. li ñu sëriñ tubaa mënal ak fi mu ñu yóbbu ñun xam nañ ni moo ñu moom waaye nag daf ñoo booleeg sa jëmm ji waaw nga nekk nit koo xam ne nii maanaam yoon bi li muy gudd gudd gudd yëpp danga nga cee nekk nit koo xam ne qualité yi sëriñ tubaa bëgg ak taalibe di ko doxee yaa ngi ci ndax kenn ku ci nekk ci ñun da ngay ñaan doon ak taalibe faw ndax taalibe dafa doon lu sew maanaam nit di nga dox ci ay valeur dem ba ne yow jàpp ni yow taalibe nga fekk ni fi nga ko gën a jàppee foofu nga ko gën a ñàkk doon kon li ñu bëgg mooy Serigne Touba saxal ñu ak taalibe ñu fas yéene ànd ak yow faw man dama part personnel damay ñaan Serigne tubaa defal ma ak ngore ndax yow li nga ma ji lu ma mën a wax ak lu ma a wax gore rek ma war sama diggante ak yow maa ngi lay ñaanal nga yàgg fi lool ànd ak wér mucc ak wérle jërëjëf. jërëjëf euh, soxna yi am na solo bu baax a baax li ngeen wax ci sëñ Moustapha Ndiaye Al Karim di wax ne man moom li may mën a seede mooy nitu parole la nit boo xam ne que pour mu wax wax bi teggee ko yombul passif la bu amee défaut daal naqari deret la naqari deret gi mooy bu ngeen tënkee dëgg am ko ko nar a wàcc foofu daal laa gis ne dina mel na neen moom moom dafa weex dafa weex dafa ñuul dafa ñuul kukku kukku xong konk cooy rek noonu la mel quoi moo tax yàlla na ko yàlla gën a aar ci dëgg gi bu baax a baax te ku bëgg dëgg rek ku ko fekk ci dëgg day yomb ngeen nekk mais ku bëggul keneen ki wàcc dëgg bi day day ni réeroo te yàlla te réeroo baaxul kon ñu jox bu Bunaama Njaay magum mu jël kàddu yëkkati incha allah auzu billaahi seytaan rajim bismillaahi rahmaani rahim mbooloo mi yéen ñëpp ñoo leen di nuyu di leen ziar eh, ci seen teewaay bu rafet ak màggal ak maam Serigne Touba gi nii ñu ñëwal ko Serigne Touba ñëwal ko sëñ Moustapha sëñ Moustapha Ndiaye alkarim mu dalal nu fii ci jànnatu muy màggal goo xam ne yàgg na koo def muy jàmbaar lool wax dëgg yàlla xaj na yàlla def na ko muskàllaf waaye at yi bëriwul noonu waaye am na doole ak fit ak yéene ak xol boo xamante ne bii nii kenn daa koo màggal fii ci Touba màggal gi nag sëñ Moustapha ni ko sëriñ Touba santaane sëñ Moudou Moustapha santaane ko ni sëriñ Saliou Mbacke santaane ko ni ah, am naa yaakaar ne moom maa ngi koy gis te yàgg na lool. te yàgg na maa ñëw fii Touba ci màggal gi waaye mi ngi koy doxe noonu ndaxte bëgg nañ koy bernde te day bernde ban koy tuuri te ku fi ñëw ku ne billaahi wallaahi wa taala sama gars yi nekk Italie ay Espagne ñoo ñëpp ku ci liir sama statut di nga ma woo ne ma waaw yow xanaa yéen a dàq màggal Touba ca lool ma leen déet màggalu te démb la woon de may leen màggal màggal gi du tey de suba la tey bu ma leen yaa dan ne bu déwénee incha allah bu ñëwee fii la nii daal waaw léegi di leen sant di leen gërëm rek di euh, gërëm fondation Alkarim bi nga xam ne tamit ñoom lépp ñoom la ñoom Serigne Modou Diop ay ñoom aan ñoom ngaar yi sama gars yi ñoom ñëpp Xaadim njaay ndaxte foo fu suñ bi tourné rek lépp lu mu yendu gars yi ñu ngi ciy fanaan bu gars yi fanaanee ci dara moom itamit ma nga tey yendu euh, kon nag sëñ bi xol bu rafet boobu ngeen wax ci moom man moo tax ma andi sama ñaari ndongaay daara samay doom laa gën a bëgg ci àdduna jox ko ko jëlee leen làmbaay indi ko jox ko ko ak tuddee ko sama doom mu drancé taal oto am ñëw ba sama dëkk yëg ma te nit ku am njariñ nag ku ñëpp xam tele la yéeg nit ñu baax ñeeg sëriñ yi soo ko xamut da ngaa soxor moo tax ma jël ko def ko ci sama bopp andi ko suñ dëkk mu tuddal ma sama doom bàyyi liggéeyam ak li muy liggéey chaque jour ma am sama yéene waxtaan ak samay mbokk tuddal ko sama doom loolu man man la neex ma def ko waaw kenn mënu ci dara di leen sant nag di leen gërëm di wax ne màggal gi neex na benn màggal dàqul màggal gi Serigne Sène yow maa ngi lay sant di la gërëm yaag sa Touba Diamaguène euh, ñu ngi leen di bëggee di leen siyaar di wax meruma de kontaan naa man mii jawriñ daayira yi ndaxte gis naa seen Pastef ak gaa yi ngay àndal dara ñorul leen lu dul liggéey Serigne Touba ak Serigne Modou ak Serigne Moustapha Ndiaye alkarim bi ña nga ca lépp ña nga ca cin la ña nga ca fees ma ña nga ca ataaya ña nga ca kàttan nga ña nga ca lépp lépp loo xamante ne bii rek ab taalibe mi ngi koy def gis naa seen yéene de ak seen Pastef di leen xool nin ci amee Pastef ca lépp Souleymane Sène yow la waaye nag yow noonu nga mën a mel parce que olof Ndiaye dafa wax ne caxat bu demee ban cay yendu la mu law a tax xañ na nag ñu bari duñu xam caxat waaye bu dee caxat ci suuf rek bu dara ñëwee lekk ko waaye bu lawee bu tax lawee ci kaw sum ñu mën caa yendu rek la mu law a tax kon sa waajur wu góor bu baax woowee nekkan wóolale Serigne Saliou Mbacke te Serigne Saliou Mbacke ku mun ne bërët dem di la seet si ah kooku am na maanaa te ku am solo la ci yoonu murid te Serigne Saliou da ko daan defal sa waajur góor yow tey nga nekk ab taawam liggéeyaat ci biir dëkk ba dëkk ba dem naa fa am na race bu nekk am na tariixa bu ne mais am nga fa doole lool mais seen loolu sa waajur la euh, di sant maire yi di leen gërëm seen dérangement bi tu xam nga la jël sa waa yëpp andi leen màggal macha allah loolu yombul jël sa waa dëkk andi leen màggal te chaque année nii lañ koy defee sëñ bi ñu ngi lay sant di la gërëm Serigne Saliou ni mu bëggee màggal gi yaa ngi ko niy defee dañuy lekk ba dem tuuri ji ko loolu la sëñ Saliou waxal te yow da ngay kar màggal gi sëñ Saliou ne ne dee leen ma karal màggal gi wàcc dalal gan ñi di ma jël màggal gi ca barke Seexul Xadim du lu la neex mais yaa ngi koy dem parce que ñun yàgg nañ fi sëñ bi kon yàlla rek la ma la fay soxna Ana yow ko baax nga sa xol bu xol bu rafet nga yor bu sell macha allah tey gis naa sorxo sorxo bëriwul dara bëriwul màggal gi lépp dama lay gis ngay dem ak ñëw ca lépp jaar yoon. nit ñi kontaan nañ ci yow maam jaara baal li mu war a def mi ngi koy def ànd ak jigéen ñi ma nga ca taal ba ma nga ca poobar ma nga ca kaanige moom lépp lu Serigne Moustapha Ndiaye di def rek maam jaara baal même bu doon taxaw. raak reyante moom ma nga ca biir nangu la caa jiitu soxna yi kon soxna yi ñu leen di sant yéen tamit di leen gërëm parce que fu ñu tourné gis leen te bu doon sëñ bi kese mu takk baas teg ay seesam togg ay benn leem kat da koy tuuli ji affaire bi du neex mais ñun ñoo koy lekkal ñoo koy toogal ci sees yi ñoo koy lekkal ci baas gi bàyyi faal yi ñooy takk baas gi ñooy def loolu lépp ñu ngi leen di sant di leen gërëm Cheikh Talif yow ko yàgg nga ak sëñ bi fu ñu gisee sëñ bi gis la sa liggéey bu rafet bu sell bi ngay def di ko ànd ak moom ba bitim réew nga koy ànd ak moom fii te gis naa yéene ji ca xam naa ne sëñ bi sa wëllëla la muy liggéey bu rafet ak sa mbokk journaliste yi ngeen di àndal wasalaamaaleykum wa rahmatullah di gërëm waa Cité Mandela gépp di gërëm waa fii Touba Mbacké waa jannatu taalibé Serigne Moustapha Ndiaye alkarim seen Pastef seen yéene képp kun fi gis rek ak kun fi gisatu ku dégg sa turó ku ko déggul rek yéen ñëpp a ci biir cant na leen Serigne Moustapha rek nee na cant na leen cant goo xamante nii dugg na ci biir cant gi ngeen ko cant ba jeex ci tàkk amul seen pay ndaxte gis na ni ngeen ko taxawoo te liggéeyam sëriñ Touba bi kat sëriñ bi la koy wax ne na ku ko ci rusta jàppale moom rusul laa jàppale soo ko soo loo ko mën a woo dina ñëw parce que liggéeyam sëriñ Touba bi rek la am wasalaamaaleykum wa rahmatullah su ma juumee ci kàddu yi di ko jéggulu sant naa leen yëpp magum wax dëgg yàlla kàddu yi am na solo te yow moom wax dëgg yàlla kuy gis alkarim rek ca tegtal ya ba ni def yi fu njaay ni yàgg yàgg yëpp yaa ngi ci kanam te dara yàqul waar xam nga nit tamit euh, def ci baax à chaque fois ñi ngi ko xamal nga koy gis ak ñoom euh, te ñoom nga koy gisal ba léegi day wan ne kóllëre gi mu am ak nit ñi li ko nit ñi ji mu ngi leen koy delloo parce que benn jour rek maa ngi ci seede loo xam ne sëñ Xaadim Njaay bii te mu xaw a bëgg lekk ba mu ëpp dafa xawoon am tawat bu ko jàpp mais ci urgence bi rek alkarim àndul ak sagoom ni mu jóge def ko yitte boo xam ne que yii kii nangam def ci passif daal nga xam ne que am na ñoo xam ne que bu nekkee nit ñoom seen bopp rek la ñu xool mais kii ni talee mbirum sëñ xaadim bi boobu leeram bu doon yëfu boppam mën na ko bañ a tale noonu te loolu mooy ànd di ñaan yàlla mu sori leen seytaane gën leen euh, déggoole musal leen ci cat ak làmmiñ yëpp ba mbir yi gën a jëm kanam alkarim tamit euh, bis bi moom daaw dugal nañ tegtal ay ay ay xaalis yu bari ay millions nit yi di ko gis ne lii lan def ku ñëw def ci ren tamit demee na noonu parce que daaw bi ma fésalee loolu maa ngi ko koy wax dama mujj joxe ay paasu màggal yu ma ci fekk daal parce que nit ñi moom euh, mën ngaa def statut lu ne ñu may la jàmm mais lii di xeetu ndawal jëm ci njaayeen bi ak xaalis moom parfois duñ la ko jégal quoi faw ñu wax ak yow moo tax alkarim moom euh, xaalis boobu noonu euh, fan la jege milliardaire nga wala millionnaire wala lu xew nga for kalbe tubaab wala màggal gi daal gis nañ Pastef bu ngi ci àndal moom balaa muy ñëw yow commencé nga màggal bu baax ak bernde yi ak set gi ak tamit daaw waxoon nga tamit dinga nga soññi nit ñi gën a bàyyi xel ci toilette te gis nañ ñu bari bu ñëwee màggal li ni gën a soxla toilette bu baax te yow ci gën a insister quoi aousu ah, billahi min alsheytaan irrajim bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi yi gannaaw ba nu sante bi subhanahu wa julli ci ab yonante Moustapha alayhi salaatu wa salaam sant Serigne Touba Cheikhul Khadim sunu yaakaar tey ak bëllëgee noonu ñaan sunu borom mi def ak dindi bàyyi ni fi Cheikh Mahmadul Muntaqa Mbakke ba mboolem li mu yéene ci liggéeyal Serigne bi yàlla na ko mottali ci barke Xaadimu Rasul di ko ñaanal Cheikhuna wal wasilatina Cheikh Ahmadul Muxtaar Mbakke maa xablahu ma Muxtaar sunu bunt ci sëriñ bi ko ñaanal bu baax noonu nga ubbee rek ci moom ñun ba ñu tàmbalee ba léegi rek ci moom niñ koy faral di waxee ci moom la ñuy tàmbalee ci moom la ñuy tëjee loolu nag sunu diggante ak moom la ci fi mu nu teg ak ñu nu def ñoo ngi koy ñaanal bu baax mbakkee sunu borom bàyyi ko fi nga ko ñaanal sunu xalifa yi maam yëpp ñu nga xam ne defaru Serigne Touba lañu eh, buñ ci tuddee njabootu Serigne Darou Hassan. ak njabootu sëriñ Modou Jigal di suñuy maam ñi nga xamante ni foofu la ñu sunu suñu borom boole eh, ñu ñu ñuy dereti ngërëmul sëriñ Touba di ñaan sunu borom yàggal fi seenu njaboot yàggal na fi nun taalibe yëpp ci barki borom Touba di sant yàlla bu baax nag bam nu mayee nu fekkaat waat bis bu tedd bu mag bii nga xam yàlla moom bis yëpp waaye bis bii nag bis bu spécial la ci bisi sunu borom yi ndax jaamu yàlla bu jaayante woon ak boromam la di ko liggéeyal ba liggéey ba lépp nangu walla liggéey ba lépp mat coono ya jeex xéewale sottiku muy xaddimu rasul digganteem ak boromam mu mel ne da ci am kersa ci digganteem ak boromam moom cheikhul xadim ba mu tax ne mu woote woote mu rëy boobee at moom ko woote woon nag 1922 la ñu ngi ci 2022 kon ren la màggal gi am téeméeri at kon ren la ñuy màggal dañuy màggalaal centenaire yi muy téeméeri ati màggal gi bi ko sëñ Tuubaa diglee ci njaareem ak tey jaarale woon ko ca sunu nopp mam ju baax ji sëriñ Balla Fally Dieng yëg woo dajale leen fere yi nañ xam ne bis bii nga xamante ne nii ci laa génne woon sama kër ga ca Mbàkke Bari Jolof ngir liggéey li sama borom da daan def saa yu jotee may séntu ay nattu yu jóge ci sama borom ndax loolu laa jaayante woon ma xëy na tey sama borom xam na ma ne ma nattu yu jeex na li des mooy ay xéewal te xéewal yi nag ni ko suñu borom joxe su ko Sëñ Tuubaa noonu it ñun ñëpp xam nañ noonu la demee muy xéewal yu sotteeku te dootu dog muy xéewal yu Sëñ Tuubaa yi kon sëñ Cheikh foofu la ñuy dugal sa laaj boobu nga ñu njëkk a laaj ginnaaw bu ñu nuyoo nag sunu mbokki taalibe yii toog nga xamante ñun ak ñoom ñoo bokk lu bëgg bokk lu ñuy wut muy ngërëmul sëñ Tuubaa ñu ay jàmbaar lool ndax barab bu ne la fay ñuul mooy ab ñagam barab bu ne la fay ñuul mooy ab ñagam man na ñii nga toogal tey ñooy samam ñàkk nit mënuma bëtt mënut mënut egg ci man te bëttu leen jàmbar yi nga toogal doon yëkkati seen kàddu yu tedd yu sell yi te rafet lool jataay bii sëñ Cheikh ñi ñi jataay bii toog am na fi juróom benn nit ñu fi toog ñoo xam tudd nañ ma doom loolu li nga koy dégg ci ku ma ku at bëriwul jataay bi nu toog nii am na fi juróom ñu fi toog juróom benn ñoo xam tudd nañ ma doom ci jataay bii rek ñu toogagul ñu nii waaw sëñ laay fay mais tudd na ma doom sëñ Adama Fall mi tudde na ma doom tudd Cheikh Moustapha sama doom doom tudde na ma doom man tudde na Cheikh Moustapha sama doom doom sëñ mu Ndiaye mi daana kàddu léegi tudde na ma doom sëñ Moustapha Ngari mi tudde na ma doom euh, soxna Mam Bousse mi tudde na ma doom sëñ Vieux Daba tudde na ma doom kon juróom benn nit a ngi noonu wala juróom ñaar sax ñoo xamante ni am naa am naa am naa ko jataay bi ci ay turandoo kon loolu ñoom ñii li ñu doon wax ci man lépp ci ñoom la nekk ñoom ñoo baax ndax la sëñ Moussa waxoon nekkoo koo lëmbaaje mbooti biiram ku dul borom tubaab moo ni am teex kon man ak mat gu nekk ci man gu jar topp amul ci man sëñ Tuubaa rek lañ ma lañ àndeek man lu ma ne lañ ma toppee ndax topp dafa diis waaye sëñ Tuubaa lañ àndeek man suñ Tuubaa lañu ànde ak man an an andin wu rafet nag woo xamante bi nii ne rafetaay gi foo ko natt rek romb na ko sa sa ñu sagu lool ci seen jëmm yi waaw maanaam seen jëmm yi dañ cee dañ cee sagu lool sagu goo xamante Sëriñ Tuubaa lañ ci def seede nga xamante bi nii nii ni ma ni ma ni ma koy sagoo yàlla xam na ne jataay bii nii jataay bii nii li ma li ma li ma li ma li ma li maanaam li ma fi jooy barki alxuraanu karim xaw mënum toll léeg-léeg damay fit fitar ñi sax wëlbatiwaat xool ne wala wëlbatiku ne la ngir bañ sama ronkoñ yi génn barke sëñ Tuubaa ngir daw yaram gu suñ jotaay bi daw yaram suñu yaram lool ndax guddi na fi mu toll nii daanaka foo xam ne une heure na ñu ñëpp a ngi toog gisoo kenn kuy toog sax wane ne dama gëmmentu euh, kon te te ñoom ñii doon wax ñi ñi ne ci seen ginnaaw te teewuñ nekk ci màggal gi wala di ay jàmbaar ci liggéey bi te teguñ jataay jotaay bii kenn xamul nuñ toll waaw ci ay jàmbaar yoo xamante bi ni sëñ bi ñoom it euh, buñ buñ teewut fii du tee ñu tudd seen i tur waaw ku mel ne léegi ki mu soxna jaara mi sëñ sëñ bonam mi tudd léegi nga xam ne mi ngi ci suuf mu jiite soxna yi euh, ba ci soxna nday aana mi magam soxna Ayda Maane nga xamante moom it bokk jëwriñ liggéey bi am ngante ko tee màggal si ren moom it di jàmbaar lool wax dëgg yàllam di borom pëseef nga xamante ni moom it boo boo dee natt ak cofelam ci nun euh, maanaam da da ngay da ngay da ngay da danga da nga ci sax day day day war nga xam ne bu dee wax ak yow lim lim lim yéenee wax lim yéen lim la yéenee wax lépp sax mun du ko mën a génne waaw euh, sëñ euh, Amadou Diouf njëriñ yooyu yi nga xamante ni ñoom it ñooy kenoy liggéey ñooy keno yi loo loo gis ci àdduna rek am na lu ko taw ñoo ñoo taw liggéey bi ñooy keno yi di ay jàmbaar lool ñoo xamante bi ni nii maanaam damay sant sëñ Tuubaa ci boole gi ma boole ak ñoom gars yi marki sëñ Tuubaa damay sant lool sëñ Tuubaa ci boole gi ma boole ak ñoom waaw di sant nag Eh, sëñ Maam Góor Seen mii nga xam mooy sëñ Jibril Seen moom it wax dëgg yàllam di koo xamante bi ne nii sëriñ bi moo na boole ndax ab xëy na suñu xamante dana am fu mu tàmbalee waaye boo doxalee dara danga xam ne lii boole sëriñ bi la ndax kër gii nga toog nii kër gi ñu bokk toog moom moo ko tabax waaye ba mu ca noppee jël kër gi daf ko muy këram su kii it suñ soxna si toog mooy wajuru mu jigéen moom mii kam bokkaloon ab liggéey muy soxna sam bokkaloon ab liggéey ci kër sëñ waajuru sëñ maam góor seen mii ñoo ànd ne ci kër gi jiite njaboot gi ànd ak ñoom ñëw kon loolu li muy wane rek mooy jàmbaare gu seen waajuru mu góor jàmbaare lii sëñ boona mii wax jëwrin wax ne eh, lépp sëñ su Souleymane Sène la waaye lépp moom damay wax ne foofa lu fa sëñ Tuubaa am rek nakku sante moom na ko sant sëñ su Sène muy jàmbaar loolu moom it koo xamante moom Eh, ku dem ci dëkk ba rek da xam ne jàmbaar la ndax dëkk boo xam ne dañ naan la kër kër goo xamante ni kër mën naa doon këruk sarale nga xam ay bâtiment rek lañ doon ñu naan la kër gaa ngi ne kër gaa ngi ne nga xool bâtiment bi ak bâtiment bi jàkkaar lool ñee di ay chrétien ñii di ay julit ñee di ay ibaadu rahman ñii di ay murit ñee ay ibaadu ñii di ay tijaan lépp moom bàyyam yor pas-pas pas-pasam ba mu yor nekk fa dëkk ba nekkal fa sëñ tubaa ba tey jàmm jàng yi dafa gën a rëy ci biir dëkk ba sëñ tubaa ko moom te loolu lépp di liggéey waajuram ba tey jii ñoom ñii di ay ndaw bëgg sañ tubaa ba mën a bàyyi seen yitte yëpp tey boo ñëwee ci kër gi lépp lu liggéey kër gi ñoom ñoo ko yor loo xalaat ci liggéeyu kër gi rek ñoom ñoo ko yor kon loolu liggéey la boo xam fa mu tëdd moom fa waajurum tëdd bég na ci jataay bii ndax lii lii loolu la fa yéene woon sëñ tubaa waaw ñu doon ay jàmbaar lool gis nga leen ñëw waxuma la ñoom ñoom ñoom ñoom buñ leen amutoon fii bu ñu doon ñu doonoon ay nit ñoo xamante dañ leen dañ leen fay xaalis ngir ñu ñëw daal fii ci kër gi ñun jaaru na ci nun ñu fay leen xaalis jëlee leen oto paasal leen ñu ñëw dal ci fii ci nun ngir njàmbaar gi ñu fi wane waaye ñëw boole ko seen i hadiya gis nga ko sëñ ab dëkk boo demee bu am fa aw xam nga ne waa dëkk bi deseetul tuñ la dara te ay nit di jaayante ak yow di la jëbbal seen bopp ngir sëñ Tuubaa deseetul tuñ la dara kon nag ñoom maa ngi leen sant bu baax baax di leen gërëm seen taxawaay rafet na lool lool lool lool lool lool di ñaan sunu borom yokk leen ay ndaw da cee bëri lool nag ay ndaw ay gone tu tànk lool di waaye nag di ay gone yu am jom ma leen di ñaanal ci barkeb Sëriñ Tuubaa yàlla gën leen a yëkkati te gën a barkeel seen mbir waaw ñi nga xamante kenn ku ci nekk ci yéen li ngay yëngu rek yàlla na ko yàlla barkeel eh, faaw ma ci cité ci sama jàmbaar jee tamit ca ginnaaw di Aliou Sène moom it ndeysaan di di ndaw waaye eh, moom wax dëgg yàlla dama dama dama dama ko ñeewante lool <laughs> xam nga nit léeg-léeg dana la bëgg bëgg bëgg bëgg bëgg ba yow sax boo xoolee boo xool ji moom sax da xam ne yow yaa ngi yaa ngi jàkkaarloo ko la bëgg xam nga nit eh, maanaam dafa am loo xam du tricher daal ak bëgg mënee su ko tricher waaw nit mën naa sax bañ nit di ko nëbbu waaye boo xasee bëgg nit rek mënatoo ko nëbbu waaw moom na noonu la mel ci noonu waaw eh, sëñ Babacar rek ñoom ñëpp di ay jàmbaar sëñ Ibrahima Mële wax dëgg ay ndaw yoo xamante bi ne nii waxumal dara waaye niñ niñ muritee rek maanaam murite gi dama dama cee neex lool daal waaw murite lool wax dëgg yàlla am na ci ak sama mbokk iba suñ mbokk ibadu rahmaan yi nga xam ñoom ñu ngi fi ànd ñoom yow ci dëkk ba ñëw màggal si nekk ci liggéey bi dëgg yàlla di leen sant bu baax di leen gërëm waaw di sant fondation alkarim yëpp nag waaw sëñ Buura wax na ko tudd na jàmbaar yëpp sëñ Xaadim Njaay ñoom sëñ Modou Diop ak euh, sëriñ Ablaye Faye sëñ Vieux Dabo sëñ Adama Fall euh, fondation Alkarim yëpp rek góor ñi ak jigéen ñi mag ñi ak ndaw ñi waaw wax dëgg yàllam am euh, jàmbaar dëgg lañ sant soxna yi bu baax ñoom it dëgg yàlla am waaw tubaarkàlla kàddu yi rafet na lool soxna Ndeye Anna soxna Mame Boussa yóbbaale ngeen soxna yëpp seen kàddu yi rafet yi waaw di sant sama waa ji tamit Baye Dieng nga xam moom it nii nii nii daaw fii nga fekk ñu ànd màggal gi noonu ñëw ànd ak njabootam gépp ñëw màggal seeg noonu bis bu dee ñëw togg ay coono yu bëree bëree bari di yëkkati di yu bari di ko def ci màggal gi kon di ko sant bu baax di ko gërëm te di ko ñaanal suñu borom gën koo yokk te gën a dolli ay xéewalam ci barke sëñ Tuubaa waaw xanaa di gën a soññe soññewaat rek eh, ci ci guddi gu gis sell bii nga xam moom lañ moom lañ yendoo dundal muy sant li sëñ Tuubaa boromam bis bi nag ñu ni koy waxee fan yi yëpp rek bis bi du sëñ Tuubaa wóote wut ne kaay leen màggal ma wala kaay leen sant ma man te loolu bu ko waxoon ñun danañ ko def waaye danañ nañ leen kaay leen sant le ma yàlla kon bis bi bisu suñu borom la yàllaa ko moom sëñ Tuubaa boromam la ci sant boromam la ci santlu kon bisu bisub suñu borom la ab jaam nag doonu lu gën a foor ci digganteem ak boromam doon ab jaam gis nga ab jaam mënta foor ci digganteem ak boromam lu gën a foor doon ab jaamam sëñ Tuubaa nag bu mu jugee rek moo tax mu wane aw yoonam ne man Abdullahi laa muy jaamu yàlla waxaddimu rasul jaamu yàlla laa buy liggéeyal yonent bi alayhi salaatu wa salaam foofa la daal di wane li ko tax a jug moom moom xaadimu rasul bis bii nag bis la boo xamante bi ne nii boo boo dee nett li histoire bis bi bis du ko bis du ko gën a daw yaram cosaanul bis li bis bi bis du ko gën a daw yaram ndax boromu kër. amul njaboot am ay doom ci misaal rek am ay doom ñu xëy ñu ne la dañ lay yónnee ay communication yu bëri di la woolu gendarmerie wala police di la woolu nga yebal sa rak ne dama demal wujjil ma ba xam ñoom luñ may doyee nga dem ñu ne ko moom lañ soxla waaye yëmuñu ci moom lañ soxla sa rakk joojee laata muy agsi ñu yebal ab armée bu la jël si armée ba déparé ndar di la jël si yow nga xëy fajar sa borom xamal la ne la ñoom waruñu laa fekk ci sa biir kër gi di la jël génnal kër gi dem wuy ji leen mu génn mu bi mu génne jàkka ji suñu borom ilham ko loolu ci biir jàkka ji mu tasee ak rakkam ci buntu jàkka ji ci buntu kër gi ne ko duggaat ci biir kër gi araam na ci man génneel njaboot gi te génneel ma bagage yi te takkal ma fas yi wala takkal ma fas wi taalibe yi yanu yenu gaal yi ñu ñu ñu ñu madam ndar wuy ji nga takk say bagage sëñ bi bi muy génn këram xam na ne waaw waaw mi ngi noonu ba tey ba bisu tey jii mënuguñoo wax lu sëñ Tuubaa tubaab yi hmm. ba tey jii nii mënuñuguñoo wax ne lii la sëñ Tuubaa tubaab yi ba tey jii waaw ba waaye li ci gën li ci gën a garaaw mooy sëñ bi bi muy génn këram hmm. bàyyiwu fi gaal gum soxla hmm. ci juróom-ñaari at yi kon sëñ Tuubaa xam na ne bi muy génn kër gi daa a tukki jë jë jëmul ndar kese loolu loolu mooy gën a yéeme ci mbir mi tubaab yi doon woolu sëñ bi jamono bi ñu koy woolu seen programme du woon yóbbu sëñ Tuubaa Gabon du woon seen programme booba ndax xamaguñ lan lañu dañoo war a atte sëñ bi te xamaguñ atte bi lan lay joxe waaye sëriñ bi moom génn kër gi sëf ay bagaasam yëpp taalibe yanoo gaal yi sëriñ bi war ci aw fasam xawnullaahi la fas bi tudd taalibe yi topp ko waaye li gën a yéeme ca jataay ba mooy sëñ bi bi mu ñëwee ba egsi tund jeewal jeewal sëñ bi ci aw xuur la yem aw xuur ci la yem ca tund wa fa la fala fala gawar ga tubaab yebal ñu war a jël sëñ bi ca tund wa lañ seeni sëñ tubaa toll ci biir xur wi ñu ñoo tasee ak moom xamal ko ne ko dañu laa jël si ab yor-yor bu dëgër la ñu ne ko dañ laa jël si sëñ tubaa ne man de sama borom xamal ne ma fii laa war a fanaan ñu ne ko ñun ndigal leen jot mooy ndar nga war a fanaan yi sëñ tubaa ne leen fii la ma sama boroom fanaan loo fi fanaan sëñ tubaa waxtu woowee ñu ko doon wax ne ko doo fanaan fii waxtu woo jotaat na ci suba sax te départ gut ndax tus ginnaaw tisbaar la jógee jéebal ginnaaw tisbaar fanaan na fa ba yenduwaat fa ba jul tisbaar ba noppi doog départ jeewal nag jaar kokki te kokki googu ba mu fay jaar mboolem nit yi nit yàlla yafa te dafa yafa nekk jàmm sant na ak ñoom jaare leen départ fi dem Louga Louga it bari na intervention yu bëri yu fa dajee ba ni mu fa jëlee saxaar nag war a wutali ndar ndar googu yi nga xam fa la egg te sëñ Tuubaa mi ngi génne woon këram samedi 10 août 1895 egg si ndar ndar googu mi ngi fa jógee le 20 le 21 septembre la départ ndar war a jëm si Dakar kon sëñ trent 38 jours la def ndar 38 jours la sëñ Tuubaa def ndar def fa ñaari fan def fa ñetti fan ndax. sept ut euh, euh, euh, googu mu egsi waaw ay wax na xat waaye li gën a gën a yéeme ci loolu mooy sëñ bi ci biir gouvernance bi la lañ lañ lañ lañ lañ ko lañ ko lañ ko tëjoon sëñ Tuubaa dafa nekkoon ab prison ci biir ndar ci biir gouvernance bi mooy néegam boobu nga sàmbaram boobu nga xam ñu ngi ko géré tey te boo demee ci biir gouvernance ba benn sàmbar boobu képp nga fay fekk bu ñu sàmbar bu ñu siyaare sàmbar bu ñu siyaare benn sàmbar boobu la waaw mi ngi noonu kon ba yooyu yëpp lépp la ca des lépp am na ci ma am benn vidéo bu ma ci def la premier septembre bi passé ma demoon fa am tudd eh, am ci benn chambre boo xamante ni comme mook chambre bu sëñ Tuubaa nekkoon ñoo jàkkaarloo mm-hmm. ay ay bale lañ fa ay bale lañ fa denc mooy mm-hmm. tooñ gars yi nee neen fii ay bale lañ fi denc fi ñu dencoon sëñ Tuubaa ñu ngi koy siyaare waaye fii moom jàkkaar loolu moom ay bale lañ fiy denc ah, waaw ah, xam naa boo demee <laughs> <laughs> kon nga xam ne lool loolu loolu li mu lay jàngal rek mm-hmm. mooy sëriñ bi jom jom jom jom ji mu àndal te sëñ Abdou Lahad nee na dafa am benn bis mu ñëw siyaare si sëñ Jaxate sëñ Amsatu ne ko ndax dem nga seete góor nga sabaay Cerno mu ne ko dee demaguma fa mu ne ko na nga dem Daaru Muxti seeti sabaay Cerno bi mu demee ci mam borom Daaru Muxti moom moom sëñ Abdou Lahad nee na yenn moom ba ngoon nee na sëñ Abdou Lahad sëñ borom daaru ne ko Abdou Lahad de mën naa laa jox lu ne waaye nag du ma la jox ab yóbbal benn kàddu laa la bëgg a jox boo xam fu sa baay egg ci àdduna moo ko fa yóbbu mu ne ko mooy jom fu sa egg ci àdduna jom ko fa yóbbu moom la ëppalee ñëpp sëñ tubaa ku yàlla bind sëñ tubaa la ëpp jom li ma wax nag wax ju rëy laa wax waaye yàlla dama ci topp dara nag wax ju rëy laa wax waaye yàlla dama ci topp dara ndax xam ne li may wax dëgg la sëñ tubaa ku yàlla bind sëñ bee la ëpp jom maam ñëpp ngay waxal ko dama ne ku yàlla bind laa la wax ku yàlla bind ko jeexal ne ku yàlla bind dégg nga ko hmm. ku yàlla bind sëñ bi lépp jom hmm. ku yàlla bind xoolal xool da nga wax lu ëpp lu rëy da nga jàpp ne da am foo juum ci wax ji wala dee juumuma xam nga man man dama bëgg sëñ Muntaxa ba koy roy ci kàddu hmm. daa waxoon benn bis daan euh, sëñ Tuubaa kenn la moom sëñ Muntaxa kenn la daan wax wax wax naa ko ba noppi nag waaye du yàq dara loolu la ci tegoon moom suñu tax dane wax naa ko ba noppi waaye du yàq dara waaw da euh, wax na wax na ci ay wax yu bari ci yu demee noonu fa ko moom jaarale mel mi mbindeefum yàlla mos faa jaar noonu noonu la ko suñu tax waxee woon mel mi mbindeefum yàlla te loolu tax nag ma ne la mu ëpp jom ñëpp fi ko yàlla jaarale mu jaar fa ba noppi te amul ab taas suñ tubaab mooy ko amul taas koo xamante ni moom rek nga mën a waxtaanee mbiram ba noppi te doo ci gis loo xamante bi ni doo doo loo mën a tëb loo foo egg mën nga koo waxtaanee man nga koo nettali fi mu dool nii waa mi ngi noonu mi ngi noonu dafa am moo tax moo tax moo moo moo tax moo tax dafa am dafa am dafa am ku ko masa laaj Sëriñ Abdou Lahad lu mel noonu mm. wala ku Sëriñ Abdou Lahad masa lu mel noonu ne ñun doomi Sëriñ Tuubaa yi lan lañ wuuteeg Sëriñ Tuubaa mm. mu ne ko lu bëri ngeen wuuteeg seen baay seexu sëñ Tuubaa ba daal di wax sëñ Abdou ko benn rek laa a ciy wax mooy yéen ku dul sëñ Tuubaa bu fukki doom fukki doom képp bu amee dana ci am kenn koo xam leen mu fekk leen ci ab jotaay ngir aw melokaan wu leen neexut ci moom sëñ Tuubaa nag moom dong la yàlla defal bu amoon téeméeri doom ñëpp mel na ko neex fi mu toll nii sëñ am saarit maanaam doom ñu naan ak doom doom yi sëñ Tuubaa jonaan accam waaw ab nattu la déggu ko ci njabootu sëñ gi day mel na ka ci gën a doon gone sax wala ki fi gën a mujj adduna day mel ne da nga naan kii moom la sëñ tubaa gën a sotti ko ci moom la sëñ tubaa gën a sotti ko ko ci moom kon loolu mooy mbirum sëñ tubaa moo tax li sëñ Muntaxa doon wax barki démb boo njaay ne dem maa ngi maa ngi leen dénk yéen njabootu sëñ tubaa gi na ngeen fexe ba yoonu murit wii ba mu bokk ci histoire yi histoire mooy lan mooy toog di fàttaliku dara lu fi axe woon comme naan ay njabootu diw ga wala la diw taxawaloon ba moo ci lay ci lay ci lay mujj waaye nañ ñun nag nañ fexe ba mbirum sëñ Tuubaa bu mujj foofu waaye ku ne xam ne ne nii yoonu murid doxee ak ndaw ñi dëgmale sëñ Tuubaa na cee dal xel mën naa dal ci yoonu mag mu romb juróom-ñett wax naa léegi maa ngi ko wax ci bëccëg ne leen mag mag mu romb juróom-ñett fukki at mag mu ko romb di di di tabax université 37 milliards ci sëñ Muntaxa lañ ko mos a déggee nit koo xam romb nga juróom-ñett fekkaat romb nga ko hmm. ba noppi di tabax am taax moo xam ne quatre-vingt am tabax boo xam ne quatre-vingt euh, trente-sept milliards milliards la jël trente-sept milliards te daaw ba nu jub màggalu Tuubaa ak daaw la sëñ Bassum sëñ Abdou Khadir waxoon ne li ci demagun ëpp na ñaar fukki milliards li defagun ci li demagun ci université bi ëpp na ñaar fukki milliards hmm. kon nga biñ ko tàmbalee avant muy mat ñaari at yu mat ñaari at yi di mat hmm. murid dajaleegu na ñaar fukki milliards jox ko sëñ Muntaxa mu tabax mu nekk ci kon loolu te loolu ëpp na at kon daf fi doon ñi ngi gisal suñu bopp image ci waxtaay yu màggal gi weeru safar duggee bâtiment yu bëri noppi na ban jëbal ko sëriñ bi moom suñ li ci gën a yéeme nag te gën a bàyyi mat a bàyyi xel ci liggéey université bi mooy sëñ Muntaxa dafa génn cinq cent millions genn wàllu milliard daf ko ci benn compte banque daan ne ki ma war a wuutu ci liggéeyu sëñ Tuubaa bi maa ko jàppalee lii ci liggéey bi session bi mu ne li war a continuité bi li war a li war a yor université bi ëllëg fay jàngalekat yi xeet yu mel noonu ki ma wóor wóor ci liggéey maa ko jàppalee ci loolu cinq cent kon kooku weddi na njariñ loo fekkee baat bi ñu wax njariñ loo fekkee sëñ Muntaxa weddi na loolu moom kon mi ngi noonu te te te loolu bala moo jeex sëñ Tuubaa jox lu ko liggéey bi kon mi ngi noonu kon mbirum sëñ baa ngi noonu sëñ Tuubaa yàlla da koo fayee nu ne yàlla fayee na sëñ Tuubaa nu ne li sànq ci bëccëg rek bi ñuy jàngi alxuraan jamono maa ngi def benn estati daan daan daan daan ko daan ko jërëjëf Mbàkke xawma loo waxante woon ak sa borom da waaye sa borom fay na la moom sëñ bi xawma lu mu waxante woon ak borom waaye suñu borom fay na ko loolu lu mel noonu nag day mel ne mas na koo dal ca njaareem sëñ Fallou Mbàkke mii ànd ak sëñ Cheikh Awa Balla moom borom daaru nu wax ci maam Thierno ñu ñëw ci kër gi di siyaare sëñ Tuubaa mbooloo mi fees dell kër gi ñoom ñu jéggat di jéggat mbooloo mi ba egg si fi sëñ bi nekk bi ñu egsee sëñ Tuubaa na ko Cheikh nu ngeen def ba ñëw mu ne ko xanaa Mbàkke Mbàkke jéggat ba sonn rek jéggat nit ñi ba sonn lañ def sëñ Tuubaa daan na kii sama kii ka ma doon liggéeyal moom de daa daa baax rek waaye lii waxante wuñu waxante wuñ ko woon maag moom baat boobu bi ko sëñ Tuubaa waxee ñaari ñaari ronkooñam yi dafa dafa fasta ci sikkimam bi sëñ bi daa tuur ba ñaari ronkooñ yi bi moom sëriñ bi nga xam moom lii mbooloo mi di raj rajee ci moom ci fii ci àdduna ci jamono bii bi mu fi nekk moom sëñ bi moo rawoon ne dégg nga ko fan yi sëñ Bass di ko nettali nee na sëñ bi da da demoon na ba egg ci ne lu mu gis ci kër gi rek mu ne mu ne lii daa daa manqué ci réew mi kon sëñ Tuubaa lu dem na ba egg ci ne lu mu gis ci kër gi xaal sax boo ko gisee ci kër gi xaal xam ne xaal daa manqué ci réew mi ndax nee na da taali bi dañoo demoon ba egg ci ne lépp lu ñu yëg ne mi ngi waaj a manqué lu am ci dëkk bi ñu jënd ko yut ko sëñ Tuubaa bala moo manqué te sëñ bi du ko am moo tax nee lu mu gis mu bëri ci kër gi rek mu xam ne daa a manqué ci réew mi wala daa kon sëñ bi yàlla yàlla da koo fayee nu ne ba lépp loo xam nga li gën a foor ci àdduna mooy ab xol gis nga yàlla bu ko neexoon suñu xol yi kenn du ci feranklaay ku dul yàlla waaye yàlla moom la neex mu jël suñu xol yi feranklaay ci sëñ Tuubaa ba sëñ Tuubaa faste suñu xol yi ba amutul geneen kubéer gu ko mën a yëngal gu dul sëñ Tuubaa fi noonu lañ mel fi noonu nii sëñ Cheikh ak may laaj léegi naa ndax damay milliardaire wala damay dara waaye xam nga li gën a jafe ci àdduna mooy xol bu nangu ñun suñu xol yi moo nangul sëñ Tuubaa moo tax gis nga màggal gi du mës a bekkoor du mën sa am ci réew mi ba mu feeñ ci màggal gi ñu ne àdduna dañoo dafa am bekkoor bi fi wàcc àdduna nit ñi dañoo nekk ci crise àdduna crise mondiale lañ nekk mi mi ngi noonu jamono bii dégg nga ñu naan dund bi daa seer fere yi dafa bëri nangam ak nangam waaye ñi may laaj may joxe ñu jëndi xam nañ ne laaju guñ ma dara ma ne leen xaalis daa manqué lii may wax ak li ma préparé woon ngir màggale ko barkeb sëñ tubaa xaajagut sëñ tubaa xam na li ma préparé woon pour màggale ko ngir def ko ci màggal gi ba bisu tey jii may wax yow ni xaalis bi xaajagut mi ngi ci biir ba fi gan doon toofaat fukki fan yor naa lu leen mën a nekk ñoom fii ci kër gi di leen defal nii nuy def ba mu fukki fan yi mat barki suñ Tuubaa ndax xam nga liy waral loolu mooy xol boo xamante ni nii dara amu ci ab cër lu sëñ Tuubaa te man looloo ma dal man sama xol bii dara amu ci ab cër waxoon naa ko fii ba ma yóbboo sama waajuru jigéen Makka ba mu ñibbisee damaa toog fii ci baas bi ma koy ganale fii ci bunt kër gi nag gi nga soxna si lii li muy neex neex neex li muy nga xam dara gënu koo neex ci àdduna sa doom nga liggéey ci kër ba sa doom màgg yàlla suñu borom jox ko warsagu àdduna ba mu yóbbu la Makka nga dellu si waat Sénégal mu mu gat mu teral mu mu ganale la boppam te dërëmu kenn dugg dal loolu dara gënu koo neex yëg-yëg boobu nit di am dara gën ko neex bisub bisub tey waaye ma ne ko nag gis nga yëg-yëg boobu nit war a am cofel ci digganteem ak waajuram ci digganteem ak i doomam wala ci digganteem ay soxnaam man dama ko am ci Sëñ Tuubaa bu noppi moo tax fi ne yërmaane lay ànd ak nit man nit yi nit ñi yërmaane lay ànd ak ñoom waaye bëgg moom dama koo def kenn ba noppi moo tax mënutuma bëgg keneen ñëpp na yërmaane laa leen ambal muy ay doom ay soxna ay waajur yërmaane lay ànd ak ñoom ba ci njab ñu ci ñëpp ñii ñëpp toog yërmaane lay ànd ak ñoom ndax looloo daloon Sëñ Tuubaa diggante yonent bi alayhi salaatu wasalaam ba mu waree bëgg doom xol ab xolam côté bi ci waroon bëgg doom wala bëgg ci waajur wala bëgg leneen wala bëgg ci ab taalibe moom sëñ bi dane loolu rocc na ko bëgg na ko yonent bi salaam ba dara amatutum ci moom ab cër lu dul yonent bi alayhi salaatu gis nga nag loolu nag mu defoon ci digganteem yonante bi loolu la ko suñu borom fayee suñu xol yi moom sëñ Tuubaa ba ñun ñii fan waroon xaj-xajal leneen mu di ko bëgg ñu far ko sepp ci suñu xol yi bëgg ko sëñ Tuubaa moo waral ñu mën a yor suñuy million mën koo dem tabax ay kër wala daggee ko ay bii am avion tukkee ko wala takkee ko ay soxna ñu ne ñoo bañ dañu jël suñu million yooyu di jox ko sëñ Tuubaa toog bàyyee suñu bopp ak sëñ bi moo tax fi mu toll nii sëñ Cheikh mbir yi dellu ginnaaw waaw kanam lay jëm barki Cheikh Ahmadou Bamba waxoon naa la fii daaw ne la man boo bëggee gis nit ku bëgg nit ku dugg àjjana tey dund man xool ma man àjjana laa nekk ba nopp di dund moo tax man man waaw loolu de moom moom <laughs> day moom ah. Ah, waaye daal xam naa ne moom sëñ Tuubaa moom lépp yàlla jox na ko ko waaw yàlla jox na ko lépp da hmm. te aljana hmm. jaamum yàlla la yàlla ko moom àjjana yàlla ko moom nim nu moomee ñun ay niti àjjana lañ ñun ay sawaraaj ay ya ca wet ga yooyu nun ba ko yàlla di bind nun taxunu ñun ay nit àjjana lañ ñun ba nu yàlla dafee ñu doon ay julit ñun jullit ñun jullit ñi ah, man du ma du ma man àjjana man du jàpp ne ay murid doo nga fay dem man damaa jàpp ne kuy wax kuy wax baatub laa ilaha illallah muhammad rasulullah rek àjjana nga jëm man loolu laa gëm Ah, man ah waaw moom laa la wax déggoo li ma wax moo tax ma ne ñun ay niti àjjana ñun laa wax ay niti àjjana ñun ñii toog man damaa lañ faatu rek moo ñu tey dem àjjana man loolu laa gëm loolu mooy sama gëm-gëm te loolu laa yéen ñëpp fi ni chrétien sax ba ma sañoon bala ñoo faatu ñu doon ay jullit ba ba mën a dem àjjana man bu ma sañoon sawara yàlla gental ko dama sax gëm naa loolu nag gëm naa ne fi mu toll nii yàlla nitam ñii ni mu leen liggéeyee ak ni mu leen terale ak xoolal yàlla nim ñu terale nga xam bi ñu gënee àdduna daa dajale ay nit ñu tudduñu te suñu bàyyi rek ma nañoo ñu tudduñu kenn ku ne sa bàyyi mën na laa tudd waaye da ngay gis nit koo xam ne dëkk ak dëkk lay taalib oto wala nit koo xam avion lay dugg ngir rek fekk ngental diw teraanga mënut a weesu loolu sa waajur lu mën ci teraanga mu defal la ko nit bu génnee àdduna mboolooy dajee ñii am na ci ñoo xam sax maanaam bu egg see ci armeel yi dañ lay jàppoo mënoon nañ laa diri nit bu faatoo mënoon nañ koo defar ba noppi teg ko ci ab burwet nga dañ koy suul rek mën nañ ko teg ci ab burwet sax dam suul waaye suñu borom da koo teral teraanga joo xam ne dañ koy yanu wa ñu jàppoo ko ba egg fan koy denc dugal ko ci oto boo faatoo maanaam nu ne nu ne nu ne nu nit nu ne nit war na ko jàngate ba ci bàyyee ko xel boppam ci teraanga ju suñu borom def ci moom moo doomu aadama war naa woyefal boppam ci ak wet waaye war naa xam ne nag yàlla woyefalu ko yàlla woyofalu doomu aadama yàlla seen na gan doomu aadama waaw moo tax doomu aadama wurta caaxaane boppam wurta fooy boppam war na bàyyi xel boppam lool moo tax gone yi loolu laa leen digal waxtu wu ne waaw rawatina gone yi gone yu jigéen yi sama njabootu bopp gi waxtu wu ne rek loolu laa leen digal kenn damay wéet ak ñoom kenn par kenn loo xam seen waju seeni waju sax duñ ko duñ ko yëg ngir rek bëgg bëgg ñu tege ci aw yoon waaw bëgg ñu tege ci aw yoon waaw kon kon kon yëf yëf yaa ngi noonu rek. Mm-hmm. léegi euh, tamit euh, damay gis comme yow ni ngay bàyyi xel ñuy dund tamit noonu nga bàyyi xel ñi fi jóge waaw euh, dafa am sa benn taalibe xaw ma sa wóllëre bu fi jóge waaw chaque année ma gis nga def ko estati te kooku xam nga ne ëpp la xaalis dàqulaw sant ëpp la tur xam nga mais gis naa ne te jóge na fi bu doon ne mën nga ko fàtte comme li may wax ci sëñ Xaadim léegi nii mais kooku moom mu fi nekkul te Pastef boobu ak nga am ci moom nekk ba léegi loolu lan la la ji. maa maa ngi ñaanal Pape Ciss Pape Ciss. daaw mi ngi woon fii ci kër gi. bi mu fi nekk daaw tawatal na lool ba boo ko xoolee sax da nga xam ne kii wérut. Mm-hmm. wàcc na ab liggéey. daanaka bi ñu jógee ci màggal gi soriwaat mu wàcc ab liggéey moom it maa ngi koy ñaanal yàlla yërëm ko. Mm-hmm. te jéggal ko. te xare ko àjjana te yeexenu mm-hmm. ak mboolem ku mu fekk barsa ak ko fekk. barke Sëñ Touba mu doon jàmbaar lool wax dëgg yàlla yàgg ak nun lool ci liggéey bi moom Euh, ki nga tudd léegi am am di tudd am di Moustapha Diop doon koo xamante ne nii histoire am rek doy na waxtaan histoire ak man doy na waxtaan doomam ma ngi ci kër gi doom ji gisu ko moom gisu doom ji waxtu wi màggal ndeysaan mag dañoo dañoo jub màggal Daaru Xudoos mu ñëw ca kër ga ne man de sëriñ bi damaa damaa am soxna su ma bëgg bëgg koo jël soxna damaa gis soxna suma bëgg bëgg koo jël soxna dam waxtaan ak ay waajuram ay waajuram ne ma damal yebal sa damal indi say kilifa ñu may la ko hmm. te man genn kilifa la am ci àdduna muy yow ma ne ko baax na dégg naa ko bi nee ba gi mu ñëw tàgg ma ne dama laa bëgg a jiitu Tuubaa su ma demee toppatoo kër gaak yooyu ma jox ko la ma ko jox ne ko damal maa ngi ñëw ndeysaan bi ma ñëwee màggal daal ko doon ba ci suba ga ma ma ma dem fa ànd ak sëñ xaadim Njaay mi ak sëñ xaadim Ginne ak ñenn njaboot gi ñu ànd dem bañ eggee ma waxtaan ak ay waajuram ay waajuram ne ma lépp a ngi sa loxo eh, jàppal bis nga xam ma jàpp bis bañ koy maye maa jàpp bis ba mu sëy si fii la sëy si kër gi soxna si fii laa ko wàcc ci kër gi ñu ne suba la màggalu Tuuba mu wàcc ci kër gi bisu màggal gi ñu bale ko bisu màggal gi mu mu doon ak ganam soxna si juróom benn weer wala juróom ñaar lañ def am di wàcc ab liggéey nga xamante bi mu fi bi mu fiy jógee soxna si dafa toll diggante bi mu ganee àdduna ma doom am doom jigéen ma tuddee ku ñuy wax Amsatu Siis laa tudd doom ji doom jaa ngi fii ci kër gi li gën a yéeme ci loolu mooy soxna si bi mu liggéeyee ab liggéeyee mat eh, laata laata sax eh, ab li liggéeyam di mat am na doom te xam nga jigéen moom bu nekkoon ci di muuru bu amee doom rek ak muuraayam foofu la yem nga xamante bi ne nii bi ab liggéeyee kon bi mu demee ba ab liggéeyee mat ba lépp man daanaka defaat lu mat am at wala lu ko jege am mbokkam mbokkam mbokkum boppam ndax moo am di bokkuñu woon dara ay waajuram xamuñu woon sax am di hmm. eh, waaye amee amee keneen koy bëgg hmm. ñoom ñoom ay waajuram dañ dañ leen a yabal dañ ko yabal dañoo yabal kooka ci man hmm. ne nañ ñëw wax ak man ñoom xale bi bañ ko mayee am di lañ lañ ma ko denkoon booba lañ ci pare kon nga xam moom biñ koy mayewaat man maa ko maye tey jii mi ngi ci kër gi ay waajuram Touba gi lañ dëkk xëy na sëy tubaa waaye bi at yi yëpp bu dee màggal si fi lay màggale ci kër gi mook doom jooju doomam jooju ñu ngi ci kër gi tey waaye am di moomu nag li tax mu marqué nu pëseef ma ko waral pëseef gis nga nit yoonu murid wi dara mënu cee may dara nit dara lu du pëseef gis nga li fii ak maa ngi dund ngóor soos sama xel lu ci moom li fii ak maa ngi ci kaw suuf rek du ma dakk du ma dañ ci di ko ñaanal du ma di ko fàttaliku moom am di Moustapha moomu gis nga moom ñëw na àdduna ba génn àdduna mus a gis fata baayam mus sa gis baayam baayam mus koo teg bët xamul nu baayam mel yaayam moom wax nañ bi ma ko ëmbee ba am juróom-ñaari at juróom weer la ma baayam tàggu ne ma maa ngi dem Mbuur maa ngi dem Kaolack nee na ba tey gisaatut baayam moom bi mu am juróom at la tàggali yaayam bi mu gisante waat ak yaayam am na soxna koo xam yow bi ngay nekk sa biirub yaay la sa yaay mujj gis sa baay bi nga juddoo ba am juróom-ñaari la la nga mujj gisante ak sa waajur wu jigéen bi muy gisante waat ak waajur wu jigéen am na am na jabar moom am di hmm. fii lañ gisante waat sama sama kër gi lañ gisante waat ñoom ñaar moom gisu doomam far hmm. waaye doomam bu juddoo mën nañ ko ne safata bàyyee ngi nii hmm. nii la sa bàyyi doon def mën nañ ko waxtaan ci histoire bàyyam waaye moom bàyyam jox ko aw tur moom yaayam moo ko tuddee wëllëreem waaw ah, noonu la demee. <laughs> loolu day daw yaram sax te moom dafa ëpp quoi ñi ciy wax day xaw a difficile léegi ñu wax euh, balaa ñuy tëj. ñu gis ne li sëñ Touba liggéey ci tuubaa lépp ak dëkk bi nga xam ne que amul benn dëkk bu wóor ci àdduna bi bu boo xam ne que ni sëñ Touba moomee Touba moom keneen moomee na foofu bu gën a leer foofu. waa Touba mooy li may wax ne li naan alal mën na lu ne mais jumaay Touba fi mu nekk dajaleel alalu àdduna bi yëpp bëgg koo jënd dangay ngay sonn rek. doo ci jot kon alal am na lu mu tële mais fi may waxee Touba temps yi mu mel na li naan kuy sangu géej nga naan ko bu ma pëndal quoi euh, xam nga géej poussière sori na fa dañ ñoo singali xob ma dañ fi dégg baat yu kenn mësul dégg xaw ma nag tuuma buñ bëgg teg ci kaw Touba la mën daal metti na ma parce que lu matul ñetti weer tur yi da dul tegge ne duma ko bëgg mais dégg ngeen fi histoire yi fi jaar quoi yoo xam ne que nee nañ diw ak nangam diw ak nangam mbàkk mbàkk ba ak nangam. yoo xam ne que benn rek dafa rëy ci nga dégg ko ci. maanaam li ngay wax nii xaw ma ko. nag maanaam tey xeetu góor jigéen. Hmm, ñu jaar ci digg bi. yin fii wax ak xeetu kii def na lee soxna sax def na lii yoo xam daal man ba léegi gëm ma ne dëgg la damay jàpp ne sabotage la daal. lu mel noonu est-ce que tamit ak tamit nit ñi xeetu ñàkk kilifa gën am ba ñu war a joxe ndigal danaan leen di di ñoom askan wi leen kon ne di leen joxaat ndigal naan kilifa yi dañoo war a wax xeetu ñàkk taalibe gi wàññeeku ak tamit yooyu sabotage yooyu di am ci dëkk bi daal. waa xam nga nag Cheikh Ibrahima Fall mi buntub yoon yi daa waxoon ne sëñ Tuubaa ñag na ñag bi ba nit lu mu jàmbaare jàmbaare mënut a bëtt ñag bi waaye lii bëtt ñag bi ci biir ñag bi la juddoo dëkk bi nag màgg na màgg goo xam ne lu ne mën na fi am ab dëkk la fi ñu toon nii Tuubaa am réew Touba fi mu toll nii am réew la. te ne góor jigéen doo gis beneen góor jigéen kenn ki la ñuy wax. waaw man man man man man sax nag wax dëgg yàlla bu dëgg rek neexee yàlla. Mm-hmm. barke sëñ Touba guddi gi ma nekk. tey laay doog dégg ñu ne mas nañoo wax mbirum góor jigéen maa ko doo dégg tey nii. Mm-hmm. waaw waaw dëgg la loolu mën naa naxa kay waaw waaw xam nga moom ay adduna moom moo moo mel noonu mm-hmm. day am ah, jamono bu ne rek day am lu xew jamono ji na Sénégal li fi gën a xew bokk na ci waxtaane loolu mbirum góor jigéen mm. daa xew mm. jamono ji daa xew moo tax ku moytuwut sax yow mën na mën na ku ñaari góor ñuy wéet mm. di waxtaan lu bëri di dajaloo boo moytuwut mën nañ la koo tuumal góor jigéen nga waaw ku moytuwut rek mën nañ la koo tuumal ndax lu xew xew moo mel noonu daal ndax man ah? léegi xam nga loolu nag am na ku ma gis ku ma gënoon gis démb muy àllu ci lu mel noonu gis nga ñun ñu baree bëri ci ñu bëree bëree bëri dañoo war a jébbalu jiwaat am na ñu baree bëri ñoo xam dañoo war dem jébbalu jiwaat nañ lañ ñu waxoon sëñ ba du dëgg ndax gis nga sëñ bi jébbal naa la sama bopp àdduna ak allaaxira man loolu laa wax sëñ Ahmadou Muxtaar man loo ma digal ma def loo ma tere ma bàyyi loolu laa wax sëñ bi sëñ bi bu ne maa wooteeleel Macky Sall bu ne maa wooteeleel Sonko bu ne maa wooteeleel Barthélémy Dias bu ne maa wooteeleel Aline Sall bu ne maa bul laa yamale ndigalam laay déglu man foofu laa nekk man ndax man maa ne ko jébbal naa la sama bopp àdduna adduna nag bu ci génnee politique bu ci génnee lenn lépp ci la bokk ci àdduna la bokk te loolu laa ko wan ak alaxira alaxira xaw ma guma fa dara ba xaw ñàkk gi ma fa ñàkk xam dara moo tax ma jébbal ko sama bopp adduna gii ñàkk gi ma fa ñàkk mënoon sama bopp dara moo tax ma jébbal ko fi sama bopp kon jébbal ko sama bopp adduna ak alaxira la amul lu may koy jébbal lu may lu may digal maanaam lii mooma ci arrangé ak lii mooma ci arrangé wut léegi nag da ngay dégg ko naan la ndigal jeex nag lii la sëñ bi war a digal ak sëñ waruñoo digal li ak sëñ bi daa war a def lii ak sëñ bi wërta def lii sëñ bi daa war a bàyyi li muy def sëñ bi wërta defe nii loolu sëñ bi ay mënu koo passé bu dëgg rek yàlla loolu ak li ma ngi ne woon du benn la sëñ Fallou waxoon am murit daa war a mel ne ab néew bu ko bu bu ko bu ñuy sang ab néew bu ñuy sang nag du wax ka koy sang naa ko wëlbatee ma wëlbatee ma nii wala sange ma fii ka koy sang moo koy wëlbati na ko soobee di ko xëpp na ma na ko soobee kon ñun nag suñu diggante ak suñuy kilifa noonu la war a mel wër waruñu wurta waruñu am xalaat xalaat waruñu ko am sëñ bi gis nga kim gën a sëñ Tuubaa kim gën a mën a kim gën a mën a wane boppam mooy ki na xëndang ki sëñ Tuubaa xëndang mooy lan mooy ki jeeg toog fii di nelaw ba ci yàgg rek mën xëndang daanu ci kaw matelas bi nga xam mënu tuttee boppam nelaw yokk ëpp doole noonu lan war a mel ci sëñ bi danoo war a mel ci sëñ Tuubaa noo xamante bi ne mënatuñoo téye suñ bopp ci sëñ Tuubaa sa yëtti suñ bopp ci suñ diggante ak sëñ bi amatu amatuñ ci xalaat doot duñ xalaat lii wow na duñ xalaat lii tooy na li sëñ bi tooy li sëñ bi ne moo tooy même suñ xooloon suñ bët yi ne moo daa sax ñun nan nan jàpp ne daa tooy ñu gisu tooy tooy bi rek waaye daa tooy suñu xoolee sëñ ne lii daa wow wala lii daa tooy ñu gis ne ñun lii ab wow wow la nan jàpp ne lii daa wow ñun ñoo gisul li xew ndox mii nu gis du dëgg waaye li tooy wow gi sëñ bi mooy dëgg foofu la ab foofu la ab murit war a mel nit ak kilifaam noonu la war a mel képp koo xam da ngay diglu nit muy sa kilifa nga xam amoo lenn lu dul moom noonu nga war a mel sa diggante ak moom murit yi nag sëñ taxa mooy sunub sëriñ am nañ nag am na nag ay jëwriñ yoo xam ñun ñii ñëpp ke am na bànqaas boo sosoo boo naan diw ne sëñ diw ne sëñ diw ba mu egg ci sëñ sañ mun Muntaxa la sañ bi di waxal sañ tubaa moom yoonam wii waxu ci kenn ku dul sëñ Tuubaa loo jàng-jàng ay xasida loo jàng-jàng alxuraan loo liggéey tur yàlla sëñ tubaa du la wax di nëbb sëñ Muntaxa sëñ Tuubaa du la wax yow ba noppi di nëbb sëñ Muntaxa yoonu murit genn kilifa la am sëñ Muntaxa Mbàkke la tudd sëñ Basiru baayam sëñ Tuubaa ko jur yàlla na fi yàgg teewlu amiin kooku nag damay wax ne ab sag la sëñ taxaa lislaam daa sagu ci moom sëñ Muntaxa lislaam daa sagu ci Seex Mamadu Muntaxa sëñ Muntaxa yoonu murit daa sagu ci moom moo tax sëñ Muntaxa yàlla na fi yàgg téwér du ak ñaan sëñ Muntaxa yàlla na fi yàlla bàyyi mooy ñaan gi sëñ mun taxaa yàgg na fi ndax nit bu rambe juróom-ñett fukki at ya gàttut aw fan nit bu rambe juróom-ñett fukk gàttut aw fan waaye sëñ taxaa danoo bëgg ba yàlla bàyyi ko fi loolu mooy ñaan gu bees gi loolu lañu war di wax yàlla yàll nañ fi bàyyi sëñ Muntaxa tam amu wér sëñ Muntaxa jotu ñaanal xaalis ndax ci moom lañ ma a déggee ku xëy daan nañ képp koo xam da ngaa ñëwoon di ma indil xaalis bàyyil ba suba waaye képp koo xam da fee ñëw ngir ma dimbale la nañ ko ubbil bunt yi mu ñëw toog ci banque bi nii tegul sax ab bariage digganteem ak banque bi tegul dara ne nañ bàyyi ñi ñii ñi laaj ci tey ñu ñëw te ñi indi xaalis ñu dañ dem ba suba nañ dem ba beneen yoon tey moom damaa bëgg ñi ñii ñëw ñii laaj ma jox leen te jamono ba mu ko def nag la borom kër yi gën a sonn gën a soxlaxaay mu jamono jamonoy tabaski bàyyi ba ñuy waajal tabaski xam na nañu bëri jaaxle nañ sëñ Muntaxa dajale ay takki xaalisam teg ku ñëw ne ko tàllal sa loxo ne ko mbàkke damaa bëgg lu ma tabaskiyee sëñ Muntaxa tibb xaalis jox la nga dem xamee wu ci njaay paa njaay xamee ci paa jóob xamee wu ci paa ñëpp la ci xam ñëpp la ñëpp la ci jamale waaw kon mi ngi noonu kon Cheikh Mouhamadoul Mountakha nag kon looloo tax ñu war a ñaan yàlla bàyyi ko fi ndax ab sag la dañ ko dañ koy sagoo dañ koy tiitaroo dañ koy ndamoo jullit yëpp ndamoo sëñ taxa jullit yëpp koy sagoo sëñ Muntaxa ñëpp koy sagoo ñëpp koy ñaanal kon yàlla na fi yàgg lool te na yàlla bàyyi mu sax fi sëñ Muntaxa yàlla fi sax barki sëñ Tuubaa waaw kon sëñ Cheikh ah, ah. waaw maa maa maa a maa ngi gën a soññ nag mm-hmm. dëkk bi Tuubaa ak ñu ko yàlla man loo ak képp koo xam yaa ngi dégg sama kàddu gii mm-hmm. ci kanam tuuri nag Euh, ñun dañ da ab liggéey la boo xamante ni nii mooy suñu liggéey bi ñu gën a yitteel ci dëkk bi hmm. mooy tabax tabax fi ay wanag. ay douche ay douche. <laughs> waaw waaw. loolu. lii moom yow laay dégg nga waaw gis nga it gis nga Touba gii. Hmm. man ab tali ñoruma fi. ay làmp yu tàkk ñu ruma fi mm. xam nga lu ma fi gën a ñor mm. mooy ay wanag ay duus même bu dëkk bépp doon am am ndoxit mm. na ay ndox mu ndox mu fees ci mbedd yi na duus yi ne ci kër yi baax nañu karo duus yi te duus yi nañ am ay ndox te ndox duus yi nañ set nañ karo duus yi karaw duus yi yu set te duus yi di am ndox te boo nekkee ci wanag yi nañ nañ doon wanag yoo xam boo nekkoon ci wanag yi bu dee taw doo tooy am na ñoo xam ne bu ñu duggee ci aw wanag bu doon taw dañuy tooy loolu am na loolu bul jàpp na yow da ngaa nekk ci bu baax rek ba jàpp ne ñëpp a nekk ci wanag yu baax am na ñoo xam wanag yi nekk baaxut te daa bari ci dëkk bi gis nga dëkk bii man bu ma yoroon juróomi milliards juróom laa mi ay milliards di tabax ay douche yu baax ci douche dëkk bi juróomi milliards dana jeex te naan am kër yu amul douche yu baax kon man eh, bu ma doon bu ma doon bu ma doon am lu may taxawalaat ci àdduna mbooloo may taxawalaat ci àdduna fi noonu mbooloo moom lay doon mbooloo ay nit ñu am xaalis hmm. mën a génn seen xaalis ñuy cotiser maçon yi di tabax gratuite hmm. karokat yi di karo gratuite hmm. peintre kat yi di peintre gratuite euh, pëlëme yi di pëlëme gratuite man loolu laa bëgg bu ko defee ñi mën a génn seen xaalis génn seen xaalis ñu jënd matériel yi lool laa bëgg ñu taxawal ko fi mu toll nii yitte jooju laa am amu yitte àdduna ji gën a taxaw jooju fi mu toll nii ay duus kon nag nañ nañ taxawaat ci loolu te te di ko bàyyi xel bu jaroon sax ñu taxawal kuréel goo xamante bi ne nii dañ koy lancé ci àdduna sépp fu ab nit mën a nekk ñu ne ñu ne ñu ne bëgg nañ bit bu set kenn ku ne dugal ci kuréel googu cent franc ñaar fukki dërëm bu ñu amoon benn million benn million ci ay nit kenn ku ne dugal ñaar fukki dërëm loolu ñaata milliards la xaalis bu bëri la ci par jour loolu boo weer wu ne rek ñaati milliards ngay am weenu weer bu ne ñaata milliards ngay am cent francs par jour te loolu du dara ci nit ki génne ko. douze jar nit ki def ko ba pare. waaw def ko saaru douze public la mais nit ki day fay dara. la muy fay ña koy garder. pour di ko setal ñi ci non non douze public baaxut. baaxut ah. kër yi bu amee douze yu baax rek du ah, problème. gis nga kër yi. Hmm. gis nga Touba buñ fexe woon gis nga dëkk dëkk Touba day dëkk boo xamante bi nii nii état Sénégal dafay waroon tabax ay kër. Hmm. ay maison yoo xamante yoo xamante bi ne nii. genre ay hôtel mën nañ ko muy tudde otel tuddee ko ay kër sëñ bi nga xam état koy moom gis nga boo ko état doon def am na ñoo xamante bu màggal jotee ñoom kër yooyu la luye di fa di fa di fa di dal gis nga loolu état marché la boo xamante bi ni gis nga état bu ñëwoon fii jannatu gi mu am fi fukki étage yoo xamante bi étage bu kër gu nekk da koy def quinze appartement wala trente appartement di ko luyee appartement trois jours yu màggal deux cent mille du taxaw nguur mënoon ci commencé teggi sañ-sañ ci dëkk dëkk bi gan lan. déedéet déedéet déedéet xam nga dëkk bi dafa am borom. te yàlla may na ko loo xam du ko nangu. Sëñ Tuubaa dëkk bi yàlla da ko ko doo da ko ko may. ba noppi du ko nanguwaat. moo tax lu coow li bëri bëri ak lu fi état mën a def dëkk bi ki ki sëñ Muntaxa sëñ Muntaxa ko moom ki fi nekkal Sëñ Tuubaa ko yilif ci wet yëpp loolu nit mënu ko fee def te dégg wu cekk fi nekkal Sëñ Tuubaa waaw kon yooyu yëpp waaw maa ngi def ñaar boo sangukaay ak beneen man bu ma sañoon kër gu ne ñeenti douche lay ñaari sangukaay ak ñaari cabinet hmm. man bu ma sañoon loolu lay am kër gu ne Touba ba Touba daj waaw waaw ah xam nga nag gis nga nag gis nga nit ñi loolu daa war a bokk ci nit ñi nit ku ne fu mu jëm di ko yóbbaale hmm. nit fu mu jëm hmm, daa war di yóbbu socc yóbbu boros yóbbu saabu di yóbbaale njàmpeem waaye saabu duñ ko bokk ab boros duñ ko bokk ak njàmpe duñ ko bokk yooyu duñ leen bokk nit ku ne foo jëm yooyu boo ko mënta ñàkk ca fan ya nga fay def da nga ko war yóbbaale waaye sëñ bi ndax war wi amul njàmpe sëñ bi ndax dama dugg ci yooyu fekk ma faf saabu yow bi ma boo fekk saabu sax waroo ca sangu ah loolu yooyu a bàyyi xel yii ñuy wax na mii mi ngi mel ne lu reelu ah, waaye wax wax ju am solo la wax waaw mi ngi noonu waaw kon mi ngi noonu kon kon nag kon mi ngi noonu kon nag nañ nañ nañ gën a góorgóorluwaat ci loolu da te bàyyi ko xel kon daal loolu moom moom ci gën a yitteel ci dëkk bi fi mu toll nii di ñaan suñu boroom nag jàppandal ko waaw fan yii nag xam naa ne moom Tektal TV sama télé bii nga xamante ne nii maa ngi jégalu bu baax ñi nga xamante ni dañ maa bëgg lool ci wàllum liggéey bi waaw liggéey bi sëñ si xam nga ci dara yow xam nga ne man am na nit ñoo xamante ne nii am nañ ci man ak cofeel lool bëgg ma lool ci liggéey bii muy liggéey mu ma seq ak yow euh, di sant yàlla ci di ci sant yàlla nag ndax 2017 la laa njëkk toog ak yow ab jataay 2017 ak léegi juróomi at la sa sama sama sama ñetteelu jataay ak yow dama laa waxoo dama laa waxoon ne la sa wala sama jataay bu njëkk ak yow dama laa wax ne la sëñ Seex liggéey bii bëgg naa kaa yóbbu foo xamante bu ñu nii fu sori lay doon fu sori dana dana ko yóbbu noonu laa la ko waxee woon eh, tàmbali tàmbali ko ak yow ñu def suñ première jataay ñaareelu jataay ñetteelu jataay ma wax la ne la sañ Seex dama bëgg ànd ak yow dem bitim réew suñ borom def kàddu lépp lu ma masa toog ak yow ci yow ab émission rek tañ romb ko suñ borom def na ko lu ma masa wax ak yow nga xam bi ma koy wax ak yow même su ne bi ma koy wax ak yow sax tooñ laa la waroon wala kaf laa jublu woon na ma ko doon kafe rek suñu borom def na ko noonu gis gis nga ñaan foofu laaj toll fi ndool ni gis nga ñaan fi noonu man bu ma la bu ma doon kaf ak yow sax ne lay seex dama bëgg nga milliardaire bu soobee yàlla léegi nga milliardaire waaw gis gis nga man maanaam maanaam maanaam egg naa foofu gis nga man mm. ñaan li ci nit ñi di sonn mooy ijaaba man moom laa am dama am ijaaba ci ñaan lu ma ci bëgg a def mën naa ko cee def man naa cee fal mën naa cee waaw <laughs> waaw incha allah kon mi kon mi ngi noonu rek loolu sax tey ëpp naa wax ci bis bi mhm. waaye nag ginnaaw day am ñoo xamante ni nii image boo dugal mhm. ñu gis sama photo duñ ko romb mu jàll ak lu ma ca man a wax rek mhm. danañ taxaw xool ko kon euh, te loolu ay ay ay ay ay téeméeri téeméeri nit la mm-hmm. yoo xamante bi ñun image bu ñu romb ci internet bi gis sama foto xam ne lii maa ciy wax mm-hmm. danañ taxaw xool ko ba mu jeex kon ñooñ ñëpp nag maa ngi leen di bëggee fu ñu mën a nekk ci àdduna fu mën a nekk ci àdduna maa ngi waajal tournée international mm-hmm. boo xamante bi ñun fii fan yu néew rek bu soobee yàlla sax xam naa ne maag seex mi noo koy ànd euh, bu yàlla sax ci weer ci weer wii ci weer weer yi ñu jëm rek ki laa ko bëgg a def incha allah rabbi tournée internationale boo xam ne dañoo fas yéene wër àdduna nag àdduna waaw waaw génn réew mi dem ci réew yu mag ya seeti leen nemmiku leen incha allah Baye Mass ak docteur ak Petek ñoom ñëpp ak xarmat ak waaw ñoom ñëpp rek soxna May ak sëñ Fallou ñëpp lañ bëgg ñu ànd incha allah rabbi waaw waa fondation Al Karim léeg-léeg bëgg naa ci sonn nañu nag ñu ciy demale léeg ma ànd ak ñetti nit ñu dem France yàlla Allemagne dem Portugal waaw dëkk yooyu dem Belgique dëkk yooyu moom bëgg naa léeg-léeg may ànd ak ñaar ci soxna yi ñaar ci góor yàlla yi waaw waaw rawatina gone yi xam naa gone yi ñi am borom kër moom dañ ma koy jéggal ma yóbbu sama gone yu ko defee di ànd ñoom di tukki <laughs> ngi noonu liggéey baa noonu rek waaw noo gën noo gën a bëgg sëñ nag moo xam moom boo dee waxtaan ak moom waxtaanam day day am soññee waaye day am bëgg maanaam moom kenn mënut a waxtaan ak moom ba noppi di stressé woog di bu dundi coono maanaam moom maanaam moom day wax ne du du du du du du am yéene yi dindil nit ñi njàqare ba nopp di leen teg njàqare waaw kon foofu moom foofu la nekk moom kon kon kon day nit ku baax moom sëñ Cheikh di nit koo xam ne sama xarit la boo xamante bi ne nii wax dëgg yàlla am jataay ba njëkk gisante ma moom suñ bis ba njëkk gisante ca Fass Mbaaw ci sama kër ak jataayam bii amatu ak wuute sequñu maak moom ci àdduna lu luñ mënta waxtaane fii ci télé bii barki sëñ Tuubaa lépp luñ ma seq maak moom lu luñ mës sa waxtaane maak moom man mën naa ko waxaat ci micro bii muy lu ñu wax ci téléphone wala lu ma envoyé vocal wala lu ma ko envoyé vocal lu ma seq rek mën naa jàll fii ci Tektal TV àdduna sépp di ko seetaan kon lépp lu baax lañ seq liñ ma lañ lañ seq maak moom di nit koo xamante ni nit ku baax di ko ñaanal bu baax suñu boroom gën koo taxawu te gën koo jàppale ba yéenam ji rafet ji mu am suñu borom mottali ko yéeneem jooju jëpp ci barki sëñ Tuubaa suñu xol sedd na ci yow lool yàlla xam na loolu nit ku nit nit nit baax nga waaw jërëjëf bég nañ lool waaw waaw soxna yi gërëm nañ leen bu baax waaw ñaanal ñëpp waaw ah, si si nag man xam nga waxoon naa la yooyu moom seq ma ko kenn nag de toog daal ay ñaar soxna laa mag nangam ak nangam mm-hmm. yooyu man dama koy bàyyi ak sëriñu gone yi def yooyu mm-hmm. man seq ma yooyu kenn nag seex seexuma yooyu kenn seexuma ko kenn yooyu. ah. waaw xam nga moom de foofu laa nekk de. waaw hmm. ah, foofu laa nekk waaw ñoom xam nañ loolu. ñoom sax ñoom sax cofeel cofeel gi ma leen gi ma gi ñu waroon am ci man. Hmm. dama leen dama leen koo ñaan rek ñu yokk ko sëñ bi. ñun ñëpp ñu bokk bokk bëgg rek muy sëñ bi. waaw loolu laa leen ñaan rek. waaw mi ngi noonu waaw. amiin amiin amiin amiin ñoom nag ay jàmbaar lañ hmm. waaw ñi ñi fi nekk ñëpp ñoo ñoom ñoom ñoo ñii mm-hmm. man awma ñu may ñu may seppi eh, naan ñii ndax ñi ñi ñi ngi tudd noonu boo ñëwee ci kër gi mm-hmm. mënu mënoo leen a ak gan ñi waaw leen a ak gan ñi mënoo mënoo mënoo leen xàmmee ak waa fondation mm-hmm. ci biir lañ nekk du ma du ma favoriser ñii naan yéen a ñii nangam ak day mel ne sax ñoom ñooy doon ñooy doon ñooy doon toppe yi ñooy topp ci ginnaaw ñii ñooy jëwriñ yi ñu topp seen ginnaaw nekk ci liggéey bi man noonu laay bëgg di dundee waxtu wu ne ba ku seetluwul ku amul seetlu sax da jàpp ne dañ dañ leen a bàyyiwut xel wala dañ leen a fongul wala dañ leen tegut fenn waaye demewut noonu waaw maanaam maanaam dañ dañuy dañ dañ leen di wan ne leen yéen yéen nit ki bu xasee ba moom lépp rek eh, warutu xëcc dara mu jëm si boppam waaw waaw kon nag mi ngi noonu. kon wàccaayu bi waaw wàccaayu màggal gi de fi mu toll nii su ma jullee suba rek suba. yaa itam waajal naa 2023 maa ngi nga màggal dama koy condamné loolu lépp rek du ñàkk lu ma ca def waaye wan sëñ bi nag nag sa màgg gi dama ñor màggal gi bu ñu ne woon suba la suba te denc ma woon benn dërëm lu war a màggale lépp dana tegi sama loxo loolu xol xol bi nga xamante ni mooy dox diggante nit ki ak taal ak sëriñam mooy digganteek diggante ak sëñ Tuubaa dox na sama diggante sëñ Tuubaa ba noppi ba nga xam man sama yitey bopp kase sëñ Tuubaa du ma seetaan. rawatina lu ma ko bëgg a liggéeyale nag sama yu tey bopp moom moom sama yu tey bopp yoo xam ne dama war a toppatoo te yoruma lu ma ko saafara sëñ tubaa du ma ci seetaan rawatina alal joo xam sëñ bi joxe moom laa koy delloo loolu sëñ bi du ma ci seetaan waaw sëñ Fallou moom it nga xamante ne nii ah baasu daan di waaw ma ma xam nga xam nga nag sëñ Cheikh sëñ Cheikh mu jot na damay lancé waale màggalu Fass Mbao màggalu Fass Mbao 2023 loolu nag maa ngi koy maa ngi koy yëgalaat gaañ yi ñu ñu ñu xam ne fi mu toll nii ñun waa fondation Al Karim mm-hmm. événement bi nekk suñu kanam nii fi mu mooy màggalu Fass Mbao ñun nag euh, dañuy màggalu Fass Mbao ni koy waajale mm. mooy bu desee benn weer mm. dañuy àndandoo ñun ñëpp euh, sol suñ col yi nga nu xamee rek muy weer blanc bi mm-hmm. sol suñu yére yu weex kaalo kaalo yu wert mm-hmm. ñëw fii ci Touba siyaare si borom Touba ci jumaa ja siyaare doomam yëpp barab yi barabam yëpp njabootam yëpp ñu siyaare leen ñëw fii ci kër gi añ ba noppi dugg ci oto yi dem siyaare ji sëñ Ahmadou Muxtaar ñu fi sëñ mu Moustapha jox ko suñu addiyee joxaale ko addiyee yi ñu dajale tam jëm ci université bi ndax ñun sëñ seex ñun waa fondation Al Karim université siyaare siyaare bi njëkk def siyaare ji sëñ Ahmadou Muxtaar muy daaw jéeg maanaam siyaare bi njëkk yóbbu ci université bi muy daaw bi ñuy dem dañoo ne euh, daa dama bi bi siyaar bi defee une semaine rek damaa wax damaa soññee ci gaañ yi ñu ma ne damaa bëggoon ñu dajale lu ñu yóbbaale ci université bi hmm. gaa ñi daal dajale li ma lay wax ni ak siyaare bi bu matee bu matee juróomi fan ci hmm. cent mille yu war a jëm ci université bi hmm. ñu dem joxale ne ko lii ci université bi la jëm bii jàll ñu dajale million ne ci université bi la jëm ren jii ren jii am na kenn nit kenn ci biir mbooloo mi koo xam biir bi set mu joxe ñeenti téeméer ci université bi xam nga kooku kenn nit koo xam nga ñaata la joxe ci université bi moom kenn nit laa ci biir mbooloo mi am na ci koo xam ci biir mbooloo mi bit bu set dana joxe ñeent téeméer ci université Serigne Mountakha bi góor la ci biir mbooloo mi la nekk ñi mi ci biir mbooloo mi waaw mi ci biir mbooloo mi kon bit bit waaw kon mi ngi noonu kon loolu loolu loolu loolu mooy loolu mooy mbooloo mi mbooloo mbooloo moo moo xamante bi ni nii it nag lépp loo gis ñu di ko wone ñun ñun ñoo ko ñun ñoo ko bokk def maanaam du loo xamante ni kii ko def bàyyi kii gis nga nag gis nga gis nga yooyu nga gis ñuy esthète yi mm-hmm. gis nga léeg-léeg may wax ak ñoom comme àll ji nga ma wax nii ne léeg-léeg nga tàng xeet yu mel noonu ñu lee maanaam liggéey Sëñ Tuubaa bii mm-hmm. lu lu ne lu ne laa leen ci yàq mm-hmm. lu ne laa leen ci yàq maa maa maa maa maa maa maa ngi jéggulu sax ngi jéggulu bu baax ci ci ci liggéey université bi kenn joxewut mm. kurut borom ñeent téeméeri kese moo joxe mm. ndax moom keroog dimanche ci réunion bu mujj bi keroog samedi moom daa génne 14000 am muy semaine bi mu joxe ko ne sama liggéey semaine baa ngi nii kon démb ci àllarba ji université bi fàtte nañ ko soññoo ci groupe bi sa jataay bii na tax na yéen ñëpp génn leen fii balaa micro bee dem ñu génn liggéey université bi Modou bisimilah yaa ma gën a jege buuna bisimilah ah, jëwrin ñëwal bisimilah sëñ Ablaye ñëw leen sëñ Xaadim Ndiaye ñëw leen waaw ah, ñi ñi ñi ñi moom seqal na bi ma xool waaw andi ma ah aywa bisimilah université bi université bi na ñëw waaw université bi na ñëw làmb leen seen poos yi joxe si université bi yéen ñii ci ngeen bokk de yéen ñëpp ci ngeen bokk làmb leen ku dee ku dee ak dara sax poos rek àlla ñëw leen waaw andi waaw jërëjëf ñëw leen soxna yi bu ci barkeelu yéen wala yoru leen <laughs> waaw kon mi ngi noonu gis nga ko ni nii nii nii nii ñu gisee nii noonu noonu la ñuy nii nii nii soññee nii ma tarale nii ci affaire bi nii rek gël gàtt lii nu ko raw la leen soññee ci liggéey bi waaw nu ko raw raw noo xalaat rek noonu waaw noonu noonu lañ koy soññee ci liggéey bi waaye nag ñoom xam nañ li tax may soññee ci liggéey bi noonu mooy li ma yéene sama bopp rek laa laa leen yéene waxtu woon ma ma di leen ko wax li ma yéene sama bopp ci lu nëbb ak ci lu feeñ moom laa leen yéene ñoom noonu noonu lañ ko xamee sëñ Saliou ne daan wax naan liggéeyal sëñ Tuubaa duma ci yërëm kenn ndax damaa xam fay gi ci nekk man ne fo man ne foofu waxi waxi saylu Saliou jooju rek ci laa dugal li may li may li may ànd ak ñoom ci soññee gu tar gi ak gu metti gi lool ci guddi ak bëccëg joxe leen université bi joxe leen université àllarba bu jot dama leen di ne liggéey bi li li ma ci gën a ñor jamono bi mu toll nii mooy université bi àllarba ji àllarba jot ñu dugal numéro bi kenn ku ne génn sa àddee dugal ci université bi kon mi ngi noonu moo tax ñu mën di dajale ay millions gis nga année année bi ñun dañ dañoo bëri événement mm. màggalu Fass mbaaw màggalu Touba siyaare suñu Ahmadou Moutar màggul Daaru ko doos ak yeneen bis yëpp nag muy màggalu Kazu Rajab ak yëpp dañ koy dundal fi ci kër gi waaw waaye nag kon fi ñu toll nii ñoo ngi ci waajtaayu jébbale liggéey bi eh, adde yi ñu dajale di ko jébbal suñu Ahmadou Moutar ak université bi nga xam ci sëñ Muntaxa la jëm jaar ci suñu Ahmadou Moutar ak ñu jublu nag ci màggalu fas Mbao gi fas yéene ko ànd ak Tektal TV moom it sëñ Seex eh, moom mere yi ma leen mere daan mere yëpp dañ na bii passé <laughs> moom ba mu xëyee suba teel la ñëw daal di ndekki laax jël laaj mburu ba mu noppee naa day jël caméra bi nag fas yéene ànd ak <laughs> añ ba noppee mu poos dina day añ ba noppi reer ba noppee mu poos ne day reer ba noppi <laughs> waaw kon mi ngi noonu yàlla nañu fekkee déwén ñu ànd ñun lépp incha allah rabbi waaw loolaa rek euh, bu baax a baax sëñ Moustapha Ndiaye Al Karim kontaan nañ ci ñi fi teew comme euh, daaw am na ñun fi teewaloon ku fi bokkul rek euh, te dëddu yàlla na ko yàlla xaraa xaraajana te def nag ñii fi teew ni déwén ak jàmm kenn bañ a manqué kenn bañ a wéradi kenn bañ am problème ñëpp teewaat si jàmm ak salaam ba ñu mënul woon ñëw sax ñëw daal ndax jotaayu mbégte la yàlla na yàlla def ko bu baax a baax gërëm na ñëpp euh, xewal dikk loraa ngi dakk daal gërëm équipe technique bi na àndal Mohamed docteur wàdd kon sa passeport bi waa jeex waajal petit sa passeport bi waa jeex Bamas passeport bi waa jeex ñun ñëpp ñu ngi jëm Canada Belgique ak France Dubaï fu ne la ni dem yi def yi ji émission kon ngeen waajal bu baax a baax soxna yi gërëm nañ ñëpp daal xewal soxna yi tamit eh, ñaar ñu amul jëkkër ñu waaj defar seen passeport xam ne alkarim da leen di yóbbu. waaw ah, eh, waaw su ma sañoon su ma sañoon. waaw. Eh, gars yi ku ci amagul soxna te bëgg soxna. waaw na ma ko wax. petit soñoon at at mu jot bu ñu màggalee ba suba ga. ma maye ay soxna. ku ci bëgg am ñaareel tamit. Hmm. na ma ko wax. aw waaw ah, kon baax na. soo soo dégg ngeen ko kon peut-être Baye Mass kon ñoo amul problème doc docteur ne ko bëgg ñaareel nga wax ko ko bëgg nga ah baax na docteur doyal la non man mooy loolu <laughs> man sama fit bi day mas kon xewal dikk loraa nga dakk gërë gërëm na 16000 laa ko laaj dem bañ 16000 ah 20000 laa ko laaj jox ma vingt mille fii dem gërëm nañ ñëpp daal ñu bëgg Tektal TV ngeen bës bës furus bës cloche bi émission bu ñëw ngeen am ko page Facebook Tektal TV l'officiel YouTube bi Tektal TV xew xewal dikk loraa nga dakk kër sëñ Moustapha Ndiaye Al Karim gërëm nañ équipe technique bi